aouzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim mbokk jullit mbokk taalibe yi ñu ànd ak yéen fii ci Touba incha allah rabbi seen télévision Fatihul Bichri xam ngeen ko bu baax a baax boobu ba léegi ñu ko Euh, ci interview yi ci jumaa ja ci ziyaar yi ci plateau yi sëñ bi dama fàttali ba faatoon ci TV bi ci màggalu Jóor Jaañ li Cheikh Khadim wax ne Jóor Jaañ bi fii ngeen gis ne mooy cérémonie officielle bi dafa seeni àndandoo ak yéen euh, leen li nga xam ne moo fi xew kat yi nga xam ne fi génn gis ngeen ko noonu euh, kilifa yaa ngi nii di ñëw boobu ba léegi seen leen ñuy bi itam di organisé nga xamante ni noonu la noonu la noonu a mel noonu la war a doxee kon mbokk nu àndandoo ak ci seen télévision ba fàttali ci TV wan leen li nga xamante ne moo fi am incha allah rabi bu jeex itam dana ko ànd ak yéen commenté leen bu soobee Cheikhoul Khadim ànd ak suñu la sant mooy wax ci turu magam ji bismillah jërëjëf masin ba suubu leen dem gaar ba jóg leen taxaw jóg leen taxaw nuy sant Seyxi Falilu jóg leen taxaw nuy sant Seyxi Falilu guddeeg bëccëg nu jublu sayxi fallilu yaaro ci mboolem lawlu yow fallilo yaay Mustafa yaay muntakal yaay wàlliyu géejum bindeefi ay gi neex na Mbàkke Cheikh Fallo fam nga jumaa ji xal yoonu daagul dugal tariqul alaaji Fallo yaay rasulullahi dem nga fa Makka fam nga ni li laay alaaji Fallu yaa juboog li laay am nga ngeen li yàlla hubbu laay fam nga ngeen li Bàmba hamdu laay sariyatu aqiiqatul iimaan alaaji Fallu yaay borom kéemaan sëriñ Moodu bu sa jeng sëriñ Moodu sa jeng sëriñ Moodu sa jeng sëñ Modou bu sa jeng bay baa di ab xalifa di alaaji moom xarnu bee Tuuba tabax jumaa ji alaaji Fallu lay mooy xalifa moo bi yoonu Makka naw leen néew fa moo bi yoonu Makka ak Madina xarnu bi naat na ay million sappee na moo bi yoonu Makka ak Madina alaaji Baara Mbàkke saana diina yaab siyaare amadul makiyu جلس يا رحمة المكي يا روا باقي قبر طيب شارك نيول مكة خمنا بربا تيقفالو أنا في مكة أساني جمرة فون دجوة جمرة فال جلومرة جمنا سفا جمنا سامة دالبا تخو مكامة kon li may wax ni ñu ngi sant yàlla jël seen salaahu salaam di sant Serigne Touba di sant Serigne Fallou teew gi ñu teew danoo teew ndax bokk ci delegation gouvernement bi waaye ñëw fi itam nag ngir taalibe ak kóllëre ak xaritoo am sama diggante ak sëñ Abou Falilou bon tey dama ñëw santale sëriñ bi sëñ Fallou ci taalibe nag taalibe googu nag daf ñoo ñor loolu ba tax ne saa su may wax moom laay jiital ndax day loo xam ni dañ cee dund. waaw xam nga nag euh, da nga dëgg ancien ministre da nga dëgg ancien président da nga dëgg ancien député waaye ancien taalibe doo ko dégg dañ ñu nag taalibe googu xam ne dañ ñu koy ràññee dañ cee sant yàlla. fexe ba ci dox ba ñu gën ñu dëggal ndax li ñu bëgg mooy bu na nangulee taalibe rek sax war nga sant yàlla ñun nag am ñu lu ñu sëriñ Tuubaa am ñu lu ñu sëriñ Tuubaa am ñu lu sëriñ Tuubaa ndax lu am ak lu doon mooma loolu tax nag ñu koy doxalee di ko jëfee. waaw xam nga sëñ Fall dafa am loo xam ni ca baatin la ndax man mosuma ak si teg moom ci zaahir ndax amoon na loo xam ne daa ci tànk bu doon metti nettal naa ko benn bi sëñ Abu Falilu ma tëdd benn guddi gént ko nekk ci gaal. mu am ku mu àndal mu ne ana ki jaan mat ci tànk man ko maa ngi nii mu ñaan béykatuma dara ci tànk bi ca laa tàgg ko loolu ba tey ji loolu dafa nan ko <laughs> waaw waaw jërëjëf yonent bu tedd bi euh, di sant Cheikhul Khadim euh, di ñaanal njabootu sëñ Tuubaa gi yëpp yàlla bàyyi leen fi ci ay ati at di ñaanal sëñ Seydou Muxtaar mi nga xam ne mooy xalifa général des Mourides naa li nga xam ne naal na ko ci réew mi ak euh, yoonu Mouride Euh, mu sotteeg jàmm ak salaam euh, di ñaanal sëñ abo mi nga xam ne tey ji moom mooy xalif sëñ euh, sëñ sëñ falilu ak njabootu sëñ fàllu yëpp ndaxte mbégte lañu am ak kontante ndaxte lii moom mooy dalal suñ xel ñun waa kër sëñ Touba lañ njabootu sëñ Touba lañ lii rek mooy dundal mooy dundal mooy mooy dundal yoonu murit kon ba yàlla dogalee tey jii ñu ñëw ci cérémonie bi naam duñ na guléet sax waaye mbégte lañ ci am ndaxte xam nañ ne tey jii bërëb bi lu fi ñaan mu am kon boog ñoo ngi ñaan ci kàttanu yàlla suñu borom euh, liñ fi ñaan yëpp mu mu mu yàlla nangu ko yàlla dimbalu ñu am nawet ak nawet nawet bu sell nawet bu nawet bu barkeel euh, di ñaan tamit njabootu suñ tubaab yëpp yàlla bàyyi leen fi suñ kanam jërëjëf. ñu di leen siyaar tey jii bis la boo xamante ne bis bu rëy la ndax bisu seex Muhammadu Fadal doon jëmm joo xam ne dafa liggéeyal si Ahmadou Bamba liggéey bu rëy. nun nag ci biir kër gi la bokk ndax sama waajur Serigne Falloo ko yar man mii ci biir kër gi laa juddoo Cheikh Mouhamadul fàlli lu moo ma yar kon bis bi bis la boo xamante ne sunu bis la doon bisu jëmm joo xam ne du dañ ci xol yi du dañit nit ñi di ko fàttaliku toujours ndax dafa liggéeyal sëriñ Touba liggéey bu rëy ci jamono joo xam ne jamono ju metti la woon muy jamono joo xamante ne ci ay jafe-jafe la Sénégal nekkoon. mu taxaw dajale murit yëpp indi leen Touba ñuy amal màggal gi fii ci Touba waaye tamit liggéeyu si Ahmadou Bamba bi nga xam da koo ñoroon lool muy jumaa yi Touba mooy ki nga xamante ne moo defar jumaa ji ba mu àgg mu jullee ko doonoon koo xamante ne it ku yaatal yoon wi la ba tey jii nii tey yoon wi fi mu àgg Cheikh Mouhamadou faadal bàyyi na ci uh, làcc wu mag ba tax na tey jii kon bu ñu ko dee fàttaliku dama jàpp ne Sénégal yëpp ñoo war a àndandoo màggal bis bi ndax Serigne Fallou nit la woon koo xam ne nitu ñëpp la woon nit la woon koo xamante ne Sénégal gépp ko bëggoon àdduna bi yëpp ko bëggoon ngir yaatuwaayam boo xam ne amoon na ko dënn bu yaatu boo xam ne amoon na ko nit la woon koo xamante ne ku tabe la nit la woon koo xamante ne ku mat la woon ci côté boo xool rek dafa matoon sëkk kon li ñu def rek mooy di ko ñaanal yàlla yàlla dolli ko ay leer waaye tamit yàlla taas ñu ci barkeem ba képp koo xam ne ñëw na fi màggal si fi bu delloo lépp lu mu soxla woon ay soxlaam faju suñu boroom it aar ko suñu borom it nangu ñu suñu jaamu yàlla nangul ñu suñuy ñaan di jaay Cheikh Mouhamadoul Fadal jërëjëf. waaw dama wax ne lam na woon may Sénégal loolu dëgg la waaye it may teg cee it mooy lislaam benn défaut laa gis ci gouvernement bi mooy philosophe bu mel ni Cheikh Mouhamadoul Fadal ñu bàyyi ko fa. tànn Karl Marx ak Engels ak Hegel Plato ak Socrate loolu day comme laa di Cheikh Mamadou Fadel xamal ko su doom yi loolu rek laa am ci lu may dénkaane masalan moom bokkutoon ak ñun kum jotaan yóbbaale jamono jooju nag ak jamono tey du benn mu am benn waaye taxaw ne ko nii mu taxaw waa ji yurlu ko muy sëñ Fallou ji moo ko wax yóbbaale ma mu ne ko lan la mu ne ko ba bako mu ne ko waaye bako taxut taxut ngay téye ngay téye oto bi waay. lan la mu ne ko damaa bëggoon ko may baale ba njaaree mun ne ko yéegal oto bi départ wuur mu ne ko mbàkke maa ngi yow nii ba aljanna mu ne ko xoo oh, oh, oh, naa la fekk ci ko yoon wi nga di ma nekk de mu ne ko fàllu ki mën a yóbbaale mooy ki mu fekk ci kaw yoon wi ki mu mën a yóbbaale te maxtume alxuraan nga ji mu a ko dangay ngay ngëb lim ngëb problème bi ñu am nag actuellement sëñ Touba joxe woon na ordonnance ba wajaal qulubana ala tawaadudi waxul waxul taxaabub tawaadud la wax loolu lay firi bila ta tanazuin wala taxasudi feneen mu ne way non non non c'est-à-dire ci xol yi ci ci wajal qulubana ah waaw déedéet am na am na beneen boo xam ne da dama ko fàtte waaye lépp daal moom damay wax sëñ maam Mor Mbacke Mourtada ne ko sa maam eh, médecin la ku ko seeti rek mu bindal la ordonnance ordonnance bi mu soxla Sénégal tey nag mooy xol yu bañante waaw xol yoo xam ne buggantewul bañantewul ñun ñii nag man maa fi teewal. kër xali kër maam Khalifa Niass ak toute la famille Niassène maag Sidi Lamine ñoo bokk benn baay man maay imaamu jumaa yi lewoon na Niassène su ma wëlee rek Cheikh Ahmad Bamba yàgg lool ak ca sama maam ca ba mu ko jaale jee maam Mor Jaara mu yëkkati kitaabul Jalaani jox ko Baye Niass nee na ma téere booba mu jéemoon ca maam Mor Jaara seen baay li des ci dundam moom la doon firi alquran Cheikh Ahmad Bamba it jël benn téere boo xamee ne kaamil la. mu jox ko sama baay ba ba sama baay ñëwee ñaari ñaari téere ak kaamil alquran ña nga fa ña ak ñaari leetar cheikhul xadim ña nga fa ñun am nañ ci lu baax a baax a baax lislaam gépp nag tey ñëw nañ yaakaar naa sax d'après li ma sëñ Cheikh Ahmad Badawi wax man maa war a wax ci turu lislaam boobu asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu auzu billahi samil alim min asheytan rajim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima man Hadj Malick Cissé Maodo ma ñëw fii tey ci Touba ci bisu sunu waajur Baye Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacké e, tànk yi nag tànk yi kóllëre la tànk yi mbokk tànk njaboot bu ñëw ci kër kilifaam waaye nag lak sos mooy ñaari mag ñu ñu di alxaaji Amar Cissé sama waajur ak Cheikh Mouhamadul Fadal kon maa nuyu sëriñ Cheikh Sis Mokhtar Mbacke xalifatul am fi tarixatil muridiya di nuyu tamit sëñ Abou Baraka mi nga xam ni mooy tooga tey jataay yu Baye Mouhamad Al Fadal di nuyu rakkam yëpp Cheikh Abdoul Fattah Cheikh Mourtada ak mboolem kuy ak Cheikh Mouhamadul Bachir ak mboolem kuy njabootu sëriñ Fallou Mbacke mu mel na sëriñ Fallou yàlla dogal na ku ne xamoon na li ko yàlla may eh, daa daan wax ni afam ku ko ni Samba ginnaawam rek la man am kanamam rek la man mënul ginnaawam mu ni ko boobu de am nañu ko moom waaye man man Fallou mooy man sëñ Fallou mën naa sama kanam man naa sama ginaaw kon sëñ Fallou faju aajoom e, yàlla daf ko ko mayoon ndax daan na wax ni na am mu am bu am du am du am mukk ci àdduna kon loolu cër la boo xam ne ni Sénégal bari na ay yaatu na kilifa diine yi bari na waaye moom rek la ko yàlla mayoon kon moom euh, loo mës a wax lu mu la mës a wax yàlla def na ko parce que dafa jubba woon ak Serigne Touba jubba woon ak boroomam yàlla may ko loolu te mayam googu daf ci daan jàppale doomu aadama yi waaye mosu cee mosu cee lor kenn gis sax loo xam ni da da nga koy jógee pour lor waaye moom mu defar ko lépp ba mu baax walla nga def loo xam ne safaanu la eh, moom ci boppam mu jël safaanu ba. yow mu sagal la teral la ba yiir la mos naa dégg am benn nit ñu ni dafa am benn camion bu mos a yor yi ñu tere rek nekk ca kooku biñ ko arrêté mu ni Serigne Fallou ko moom ñu daw ñëw ci Serigne Fallou buñ ko waxee eh, ñu ni waaw maa ko moom maa moom bàyyi leen ko maa moom te fekk na boobu wax dëgg yàlla xamu ko yow ko tinu ko loola nag bu ñu toppoon kooko tey ah la koy la koy la koy la muy jur lu metti lay doon waaye moo tax man la kon moom dina gis sax lu metti wala luy lor nit wala saat loo xam ne nii nit ki mën na ci am problème bu rëy mu féete woo ko kon kooku nit ku nitu yàlla noonu lay def kooku noonu la meloon e ba tax na bu dee alalam tamit eh, yaakaar naa ni ay nit nax nañ ko ba tey ci lu mel noonu ci yeneen ak yeneen mën naa ci wax lu bari waaye temps bi mayu ko waaye eh, da xam ba noppi ne pat kon jëmm ju noonu su amee bis e, te mu nekk koo xam ni yàlla may na ko Sénégal e, war na bisam bu jotee kenn ku ne e, nga jóg ñëw fekk si ko mën nag am naa ci firnde yu bëree bëri ndax sama baay Alxaaji si si ànd nañu ba tey ñëw fii fekk si ko fi at bi nga xamee ni woo na ko am benn as benn at mu woo ko booba li xew léegi te Serigne Cheikh Sidi Mokhtar wax ci ñu naa tabaski démb la wala koor démb la wala barkaati démb gàmmu barkee démb la loolu moo xewoon ci jamono boobaa bi mu amee nag mu wala sama baay ba mu ñëw mu ne ko dama li ma fam lu lu yër ci diggante bi te buñ ko bàyyee mu agsi mën nañoo yàqal mën nañoo tàggale ñun yëpp ma bëgg nag yow sëñ Amadou nga doxal ma mission boobu demal ma ci këri diine yi daleel ma ko ci àlla jàpp daal sama mbokk mu baax ma demal ma ca sëriñ Cenema demal ma ca sëriñ Ndiassane kenn ku ci nekk mu yebal ko mu dem fa ku ci nekk yàlla baaxee na man mu wax ak yéen maa àndoon nag sama baay bañ fay dem waaye ba ñu demee ci Papa El Hadj Abdou fekk ko ci Tivaouane bañ jógee fii exactement dañuy dañu continuer Tivaouane bañ accès mu ne ko dama laa demaloon ci sa mbokk ma mu ne ko kenn mu ne ko sëriñ Fallou mu ne ko anamu ma nga fay baax rek mu ne ko waaw ma nga fay baax waaye daf maa yónni ci yow daal di koy wax li mu ko wax la lam ko waxoon tamit moo doon ni ko boo demee neel Abdou lu fa leerati ci moom na la ko wax nga wax ma lu ma wax ne moo lu ma wax ne doy na ko rek dinaa dina ma doy fiit lu fi leer xam naa ni dinaa la ko wax te xam naa ne lu ma la wax nga jaarale ko mu jaar ci sa jëmm nga wax ko Abdoul Aziz lu ma ko wax loole sëñ Abdou dina ko wéyal loolee papa laa jàpp des ba ko sama waxee loolu daf ni ko Amadou mosoo ma wax lu ma neexee ni li sëriñ Fallou wax ne ku ne xam naa Alaaji Abdou Aziz ci mbaaxam ak bëgg nekk bennam ak bëgg lislaam nekk benn loolu rek moo doon itteem kon loolu da ngay seet lu rafet yooyu noonu lañ ko dexe defee dem ci këri diine yëpp dem ci bay alaaji Ibrahima Niass dem ci kilifa yu bëree bëri keroog ba ñu demee ci bay alaaji Ibrahima ñas bi ko sama papa waxee bay alaaji Ibrahima dafa defa kontaan be jóg dugg ci biir génn mbub moo xam ne ñoo ngi ko ñëw ca kaw bu ci suuf ni ko Amadou li nga ma wax ci sëñ Fallu lii laa la ciy dokka décoré nga xam ne kon moom nekkoon na jëmm joo xam ni l'islam bi tey nekk benn bari na ci loo xam ne nii yàlla jaaral na ko moom ba tey jii sëriñ euh, ñi ko ñi mu ñi ko fi wutu woon bàyyi sëñ Abdou Lahad sëñ Saliou bàyyi Abdou Khader sëriñ Baara ba ci sëñ Cheikh Sidi Mokhtar kenn ku ci nekk bàyyi nga ci sawulaat waaye sëñ Cheikh Sidi Mokhtar bi mu ñëwee dafa dafa daal di yeesalaat loola ba mu ko yeesalee tamit yàlla mu ngi ko ciy defal sakk mi ngi ko ciy defal ndam et l'islam bi ñu bari ñëpp déglu nañ ko. ba kenn ku ci nekk la mu bëgg yaa ngi koy doxal kon loolu nekk na loo xam ni moo doon sunuy tànk ñu ngi ñaan yàlla ku fi ñëw yal na yàlla faj sa aajo الله من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن الأرض المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن allaha azizun hakim wa'ada allahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar خالدين فيها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم sadaqallahul aziim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin al-makin wa ala alihi wa asxaabihi wa xayri xadimihi tawi ridwani wa tamkin mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ginnaaw bi ñu santee suñu boroom julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam yeesal suñu jaayante ak suñu cofeel ci suñu yaakaar ak Cheikh ñu ngi leen di nuyu nuyóob lislaam di jiital ci nuyóo bi ginnaaw bi ñu jéggaloo ci kàddu yi bu dul woon ak ndigal li ñu ngi ciy jiital suñu kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo fi teew tàmbalee ci ak Cheikh Abul Baraka mi nga xam ne moo ne ci buntu këru Cheikh Mahamadul Fadal di jaar ci moom ak bokkam yu baax yi fi nekk yépp ak kilifa yu tedd yi fi nekk yépp di ziyaara kilifa gu mag gi nga xam ne moo ne ci bopp yoonu murid di al Cheikh Seydil Muxtaar di leen ñaanal suñu boroom yàggal leen ci kanam ci kanamu njaboot gi te dolli seen wér ak seen kattan ba li ñu yéenee liggéeyal sëriñ bi lépp ñu liggéey ko ci seen sago te ñu ànd kook moom euh, comme dañuy Euh, wéyee ndigal rek waaye barkeelu itam ci niñ ko baaxoo defee ci kaw ndigal li euh, ndokkeel jullit ñépp nag ci xew-xew bu màgg bi nga xam ne ci lañu ci lañu nekk mu tàmbali woon biig ñu war ko yendoo tey muy kazu rajab kazu di ab lim di ñaar fukk ak juróom-ñaar rajab bokk ci weer yi nga xam ne weer yu màgg yu tedd la di shahrullah muy ndeyu ci wolof kon ñe guddig ñaar fukk ak juróom-ñaar ci weeru ndeyu koor am xew-xew yu mag yoo xam ne xew na ci eh, bi ñu ci gën a taxaw te mooy li ñu sant ñu ñu dikk ci ginnaaw bi ñu ci ndokkeelee jullit ñëpp ndax ñëpp ko bokk ndokkeel ci taalibe yi jagleel leen ko moo di xew-xewu al isra wal miraaj te moo di kéemtaan gu rëy googu nga xam ne walla tukki bu barkeel bu Eh, bu bu bu yéemee boobu nga xam ne suñu boroom daf koo baaxe woon sangub sang yi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te xamuñu ci li ko jiitu woon ci ab yonent ku ko yàlla masa defal lu mel noonu te ginnaawam itam yaa yaakaar naa di wax sax naa dootu am yàq wax la ndax ginnaaw laa nabiya baada loolu kon day mel ne moom ci ci ay jagleem la bokk al isra wal mi'raaj dafay xew-xew boo xam ne waxtu wi muy am fekk na booba sallallahu alayhi wa sallam nekk ci bu ci wàllu zahir jafe-jafe yu metti ndax woote lislaam booba tàmbali na lu amu ab ab ab diir ci makka di jànkonteeg ay jafe-jafe ci jëmmam moom sallallahu alayhi wa sallam ak ci sahaaba yi nga xam ne ñu àndoon ak moom te la ëpp ci jafe-jafe yooyee mi ngi doon bàyyikoo ci ay bokkam ci bokki boppam euh, ba mu demee ba ñàkk yaakaar ci makka mu ne naa dem taif wuti fa wallu wuti fa ndimbal wala wéeruwaay li ñuy wax asil ngir xëy na li may woote su ma demee danañ dana danaa fa fekk ay nopp yu ko dégg ak ay xol yu ko taataan ndeke dafa lay fekk ñi gën a dëgër bopp gën koo bañ gën koo weddi ñu xirtal ci moom ñu dese ñu di ko bundu xataal di ko sànni ay doj ba soo bëggee xam dëgg dëgg jafe yi mu jànk jafe-jafe yi mu jànkonteel foofu ci Taif jàngal du'a taif wala du'a saqif da nga gis kàdd baat yi mu jëfandikoo ak na muy delloo ci boroomam ak ni àddina lëndëme ci kanamam ci zahir ndax moom ku ne xam na ne jafe-jafe du ko yëngal waaye ci ci zahir la ñuy wax ci waxtu woowu fekk na ñàkk na ñaar ñoo xam ne ci bu dee ci wéeruwaay rek e, ginnaaw yàlla ñooñu am na fu ñu ko féete woon di bàyyi taxam Abu Taalib ak soxnaam su tedd sa ko jàppale ci biir ak ci biti sayyidatuna Xadija ummul muminin yàlla dogal ñoom ñu génn àddina lu jiitu loolu xew-xew bi di am at ma metti lool ba tudd amul xasn atum njàqare ma nee na ci ci waxtu woowu eh, ci ci jamono jooju nga xam ne ñooñ suuf ci ñi ko gën a jege wan nañ ko ginnaaw di ko bundu xataal di ko teg lu metti di ko sonal ci la ko suñ borom tabaraka wa taala mi bind suuf bind asamaan bind ñëpp bind lépp won ko ne ko kaay ma won la fi la waa kaw teg ak niñ la wormaale ak ni ñu lay yëgee donte waa suuf ñoom ñu ngi lay xamuñu sa daraja xamuñu sa àq fekk na sax waa suuf xëy na nit ñi ñoo ëmpale ak xam waaye jinne yi nga xam ne ñoo doomu aadama la yàlla boole taklif bi teg togg leen jëf ñoom yàlla yabal na leen ci moom ñu ci bi nekkee taif muy jàng alquran ñuy diglu jàngal wa id sarafna ilayka nafara min al jinni yastamiuna alquran ba aaya jeex ñu gëm dem di woote ji di soññi seenu nit loole nag nee na suñu borom ne ko nag kaay kon ma wan la waa kaw fi fi fi ñu la teg bu fekkee waa suuf ñoom dañ laa umpale ci ci la yónni sayduna jibril ak saydul amin mu ànd ak alburaq mu ñëw fekk ko makka yéeg ak moom maanaam dox ak moom doxub guddi moo doxub guddi bi mooy al isra moom moo tax alquran jëfandikoo baat bi ci suratul isra subhana alladi asra bi abdihi laylan min al masjid al harami ila al masjid al aqsa alladi barakna hawla li nuriyahu min ayatina innahu huwa samiu albasir loolu mooy mooy dox bi al isra mooy doxub guddi jógee masjidul haram dem masjidul aqsa fekk fa al anbiya wala seeni arwaax maanaam ruux yonent yi mu jiite leen ñaari rakkaam yooyee ñu ñu ñu gaaral ko fa yooyu ñu ko fa gaaral mu tànn lam tànn te mooy eh, li ñuy wax alfitra suñu boroom daal di sant sayyidna jibril nag mu def mi araaj bi ànd ak moom te mooy yéeg gi nag te yéeg gi alquran tudd na ko wala junj na ko boo demee ci suratu najmi wala qad ra'eehu nazlatan uxra inda sidrati almuntaha indaha jannatu almawa id yaxsha sidrata ma yaxsha ma zaaga albasaru wa ma taxa laqad ra'ee min ayaati rabbihi alkubra ba mu jeex ba mu ba mu yéegee suñ borom teral ko fépp foo xam ne jaar na fa ci bunti asamaan fekk fa ab yonent yonent booba tatagal ko teral ko mu yéeg ba àgg ci foo xam ne nag moom rek mook boroomam saydina jibril sax wut keneen fekkewut suñ boroom fa awxee ilaa abdihi ma awxee mu wax ko lam ko fa wax jox ko fa lam ko fa jox mu bokk ci lim ko jox nag euh, euh, xéewal gu rëy gii euh, sërica bu duun bii nga xam ne bu ñu waxee kazu rajab xel yëpp dem ci ndax mooy anniversaire am mu di asalawaatul xams du julli juróom borom bis bii di Cheikh Mamadou Fadal diglu nañ ci waxtaan wu am solo njàngale mu xóot mu mu mu jàngalee waxtaan ku ci al isra wal miraaj ndax ñoroon na ko lool ndax na mu ko daan waxee sallallahu alayhi wa sallam daf ne lay mën a cëpp loolee taxoon na mu am am mu ko tegoon ci ci loolu kon ci la ko yàlla jox julli juróom moo tax a cheikhul xadim suñu yaakaar junj na ko ci mawaahibu naafi ba qad jaa bi mayri li ahli lxayri wa baabi dayri ahlu shaqaa'i wala ahli shaqaa'i boo ci jàng baax na loolee kon ci gàttal mooy xew-xew bi ñu di loo xam ne kon lu mat a fàttaliku la bind yi bari na xatul xajul ci jotaay bi waaye ñu ngi ndokkeel ñëpp sëriñ bi na mi ngi ndokkeel ñëpp al aalamul islaami yi bépp rawatina kilifa yi tedd yi fii fi teew bokk ak ñoom diine ji di ñaan yàlla ñu fekkee ko ay ati at ànd ak mucc ak dolli ak ak bi xormati cheikhina alxadim wa bi xormati cheikhina mahamadin rahmatullahi taala wa barakaatu. bismillahi rahmaani ala rasulillah. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa ñoo ngi nuyu ñëpp ci ndigalul sunu kilifa sunu jëwriñ ci kër Cheikh Mahamadul Fadal ak Cheikh Abdoul Fatah mi nga xam ne moom la sëriñ Abdoul Baraka dénkoon lu jëm ci wàllu màggal gi. kon ci turam ci ndigalam ak ay kàddoom yum ñu wax loo ci lañuy ñuy wax la jiitu ci ay kàddoom nag moom mooy sant yàlla bu baax a baax ci boole gum leen boole ci cheikhul xadim dellu ko santaat ci bunt bi mu leen jaarale ci cheikhul xadim mu cheikh madulil fadal ne ne mi ngi ki sant yàlla bu baax a baax ànd ak loolu it di yeesalaat ñëw jabaru cheikh madulil fadal gépp takke seeni buum nekk wenn say am genn kilifa muy Cheikh Abul Baraka mii nga xam ne moo fi nekkal Cheikh Amadou Fadal ànd ñu njabootu Cheikh Amadou Fadal gépp ak Cheikh Abul Baraka nekk ci ginnaaw suñu kilifa gi nga xam ne mooy Serigne Sidil Muxtaar nekkal fi Cheikhul Xadim radiyallahu anhu yàlla na fi yàgg lool ci wér fas nekk ci gannaawam di déglu ay ndigalam di bàyyi ay tereem fas yéenee tënku ci kilifteef ba faw fas ñee doon lenn lu dul taalibe képp ku fi nekkal Serigne Touba daal ñoom ni Serigne Fallou nekkoon taalibe Serigne Touba ku fi nekk Serigne Touba ku mën doon sab taalibe la ñuy doon sab dongo la ñuy doon say ndigal la ñuy déglu say tere la ñuy moytu fu ñu toll bëgguñu lenn lu dul loolu dëkkuñu lenn lu dul ngërëmul Serigne Touba radiyallahu anhu bi nga xam ne seen waajur ci la nekkoon. nee na ginnaaw loolu mi ngi sant bu baax a baax sëti Cheikh Amadou Fadal yi nga xam ne seen taxawaay ràññiku na lool ci màggal gi dox fi ay jéego yu am solo. seen jataayu conférence bu am solo boobu nga xam ni wane nañ ci ay yokkute yu am solo yu jëm kanam lool yu murite yoo xam ne képp koo xam ne teewal nga fi keroog ca yëg dara am na loo yëg ci bu baax a baax a baax ñi doon jàng xasida yi ñëpp di sëriñ Cheikh Amadou Fadal dajaloo di ak kuréel jàng fi njàng mu yéeme mu am solo sëriñ Cheikh Amadou yi ci weeru rajab yi ñu bind ci kaamilu alquran def ko addee seen maam nee na loolu lu sori ci moom la lu sori ci jabaru Cheikh Amadou Fadal gépp la nee kon mi ngi ci sant bu baax a baax di leen ci gërëm li nga xam ne nag moom mooy tomb bi ñu newoon ñu waxtaan ci mooy xidmat Cheikh Amadou Fadal xidma mbokk yi mooy nit ki li muy def nit ñi dama ko doon wax journaliste ne leen bokkut ak liggéey liggéey xëy na boo nekkee ci barab di fa liggéey ñu lay fay nangam loolu du xidma xidma moo xidma mooy li nga xam ne ni jaam ñu ngi koy defal seeni woo ci seen seen jaajëf sax seeni woo ko ci seen woo ci seen jaajëf sax nga xam li ngay def daal yàlla rek nga ci seenu ngërëmam seeni woo ci lenn lu ci jógee ci ñoom loolu mooy xidma loolu nag Cheikh Amadou Fadal radiyallahu anhu def na ci yu rëy rëy rëy am na ci yoo xam ne ci maslaha amma jëm ñëpp ñoo ko bokk nga ne foo gees gis ko bokk na ci loolu jumaa ju mag ji nga xam ne tey ñi fiy julli ci ay ñaata junni nit ñoo fi julli yàlla dogal na mi ngi ko jaarale ci ak sotte mi ngi jaarale ci liggéeyu Cheikh Amadou Fadal boobu nga xam ne bu masaan bi ji danaan wax ne lépp loo xam ne nar na fee naa koo ji suuf si bu ñoree nara mooy jumaay sëñ bàmba ji yàlla na mel ne xorom yàlla na seey nga xam ne pas-pas boobu la daan am ngir fas yéene liggéeyal Cheikhul Khadim radiyallahu anhu liggéey boo xam ne dara du ci delluwaat ci moom waaye sàkk ngërëmul borom bi subhanahu wa ta'ala jaaral la ko ci jëwriñu yonante bi sallallahu alayhi wasallam muy Cheikhul Khadim ci la daan nekk lu jëm ci wàllu dëkk bii ñu nekk tey yàlla dogal na lotissement dëkk bi lépp taxawaay yem ci amoon ba dëkk bi mel ni meloon ci wàllu lotissement muy wàllu bi ni mu mel ñëpp jamono Cheikh Amadou Fadal ab taxawaayam la woon loolu di xidma bu am solo boo xam ne ci ñëpp la jëm xàll yoon yi nga xam ne yoo jëm Touba ba ñëw Touba yomb loolu ci xidma la bokk Cheikh Amadou Fadal taxawoon na ko bu a baax lu jëm ci wàllu courant bi ñëw ci dëkk bi Cheikh Amadou Fadal moo ci taxawoon mu nekk loo xam ne ñëpp ñoo ci jariñu lu jëm ci wàllu ndox mi noonu yooyu ay mbir la yoo xam ne taxawaay Cheikh Amadou Fadal la woon ci jamonoom te ñëpp xamoon nañ lenn ci yooyu rek doomu aadama mënu koo ñàkk ñëpp ñoo koy maasi di ko jariñoo ca loolu kon taxawaay am solo la ci woon ci diggante mag doomu aadama yëpp yi nag ku nekk ci wet googul daan féetale ci diggante mag moom lépp lu doomu aadama mas a yittewoo lu mën a doon Cheikh Amadou Fall daana ci taxaw daan ci liggéeyal Cheikhul Khadim radiyallahu anhu amoon yërmande lool bëggoon nit ñi lool daan ci taxaw ci wet yëpp man si joxe ay misaal yu bare bëri dana taxaw ci ay mbooloo yoo xam ne ay nit lañ yu war a am soxna war a am ay kër Cheikh Amadou Fall daan leen dagale taxawal ay mbooloo dagale ganale leen ci këram gii waajal leen ba ngoon ku nekk yóbbu sa yóbbu sa soxna ku nekk mu jël la ca war jox la nga yóbbaale am départ bu mat sëkk Cheikh Amadou Fane bokk na ci xidma yi daan def daawut nangu nit ku nekk ci ab kaso ca bor bàyyi ko fa wala ay jafe-jafe yu mën a lijjël daal ko ca bàyyi bu dee xaalis koy génne mu xidma ca taxaw ca ba nga génn bu dee dara jaa koy ak kaddu mu taxaw ca ba nga génn loolu liggéey na ci liggéeyoo xam ne ñëpp xaman nañ ko ci bokk na ci xidma Cheikh Amadou Fadal bari na ñoo xam ne moo yoroon seen i kër ci ak dundam daawul jaaxle daawul tiit daawul rët ndax seen kër du taxaw ndax xam ne ni chambre de vallée fii ngi fi dépense duñ ko jaaxale ndax moo leen koy jox waaye am na ci ñoo xam ne am na ñu leen daan jaar ci ginnaaw yoo xam ne ginnaaw duñu demee sax lañ xam ne xidmatu la woon mooy bi mu demee lañ ko gisatul yu leen yoo xam ne ay njël lay doon ay saaku ceeb lay doon saaku pepp lay doon yu am solo yuñ daan jaaral di ko indi seen i kër guddi ginnaaw bi sëriñ Fallu demee ñu doo ko xam ne kat kon ndeke moom moo ko fi daan indi ndax bañ ko noppee gis lañ ko lañ ko noppee gis bañ ko noppee gis lañ ko noppee gis kon xidmatu Cheikh Amadou Fadal mbir la moo xam ne moom it lu am solo la loo xam ne ci wàll yëpp foo ci foo ci lamb rek da ko ci nekk damay lañ ko ci tënk bi mooy li mu daan wax ne de sëriñ sëriñ sëriñ maasam ak su baax ja sëriñ Moustapha Karim suñu bàyyi baax ba sëriñ dañoo jàngal bañ ne ar mu yàlla ñu bañ ne nër mu yel ñu bañ ne jarra ñetti mandarga moom moo waral loon li mu doonoon mënu ko woon a ñàkk a doon mënees naa joxe misaal rek njàng ma kenn na natablewu ko ndax xam-xamam ñëpp ko nawoon naaru naar yi daanay àgg ci su masaan dagee fii am na ñoo xam ne daan bind ay xasida bind ko ci waajtaay wu wu yéene def ko nañu ko bëggee ñëw yit ko Cheikh Amadou Fall lu mu laaj ci waajtaay ak lu mu rëy rëy boo ñëwee Cheikh Amadou Fall day wëlbati kayit bi nafsul baxr baxr bi nga doon waaye mu tontu la ci nafsul xaafiya muy sa daaneel yi nga doon xaraf yi nga doon daaneel mu tontu la ci waaye adadu ab mu indil ko ci lu benn takalluf delloo la loolu la yéene woon naa ci xam-xam ab ndax de daf ne woon dégg ba dara mënu koo yëngal ab yar dëgg-dëgg mooy doo jaxasoo doo jànnaxe dara mun laa soppi ndax bari na ñoo xam ne léeg-léeg dara yëngal la ba nga soppi ko wax wala nga jëf Cheikh Amadou Fall nag moom ak matam àggoon na ci dara mënu ko soppi ak ñawam it muy yow ba ne jar xam ne ne jaxasoo ak état ni mu jafee waaye li mu jaxasoo jaxasoo état kenn mënut a wax fuubaa bi ni Cheikh Amadou Fall def radiyallahu anhu nekkoon ku mat ku yeewu ba ne jar ba ñi nit yi àdduna ñi nga xam ne daan dem dama jàngal àdduna képp bu njaxasoo Cheikh Amadou Fadal wax ak moom daanañ gis ne kii yawute gi nekk ci moom jéggi woon a doyo loolu nag a baax mbokk yi waxtu nekk fi fi nekk liggéey fi fi liggéey ba jigéen ji sëriñ Mahamadou Moussa Dieng mi nga xam ne moom moom fi njëkk a wuutu nekkoon doomu Cheikh Amadou Fadal radiyallahu anhu màggalu Kazu Rajab gii moo ko njëkk a woote sëriñ Abdou Fatah nee na ñu ngi ko ci delloo njukkal bu baax a baax a baax ñu sant bu baax a baax ñoom jabaru Cheikh ndax taxawaay bu rafet bi nga xam ne def na ko ci ba màggal gi tey ñëpp dugg wuñ si fii nee mu seen kilifa bu leen féete woon fu nekk matoon ñu doon sëkk amal taxawaay bu mat sëkk nekkoon jëmm xam ne duñ warmaal la duñ respecté la matoon Cheikh Abdou Fall sëkk ci wàllu zahir ak ci wàllu baatin amul nekkoon seenu sàgga seen seen seen tiir ci wet bu nekk nee na moo tax nag kilifa boobu jëmm jooju nañ ñu ko warmaalal nañ ñu ko sàmmal nañ ñu ko ca bañ ñoo jot nag ci Cheikh Abdou ca bañ ñoo jot ci jamono Cheikh Abdou nee na ginnaaw loolu bi mu fi jógee seen laaj baara taxaw taxawaay bi mat sëkk bi xam ne taxawee na ko kenn natt du doon ab taxawaay mat gi mu doonoon mat bëgg sëñ Fallou di ab taalibe kese ba réalisé li lépp nee na kon ñun ñëpp nañ jéem a tënk ko bàyyi xel bu baax a baax ci li war a tënk nee na li mooy seen sëñ Fallou dañuy wax ne mooy Sénégal ginnaaw dañuy wax ne mooy Sénégal nag lu laal Sénégal laal na ko sëñ bi nee lu jëm ci wàllu si éducatif bi am njàng moo yor am am njàng ndaw ñi ñoo yaakaar la ñu nekk yaakaar réew mooy seen njàng jaar yoon ñu ngi nenn ko ne si suñu kàddu yi ñu nga ak jaxasoo ay réeróo yu am ci diggante ñu ko set mi ngi ñaan ñu ko set nañ toog waxtaan fexe ba sowe xale yi ndax avenir u réewum ëllëg kat mi ngi nekk ci xale yi seenu njàng kon nee na ñëpp lu doon cër bu ci waay am wàcce nga war a wàcce sa bopp jàpp nga war a jàpp ne yow yaa war a nee na ñu ngi koy ñaan pour maa doon ndax ñu sowe réew mi xale yi nee na kon lépp lu nar a jur ak réeroo dañu fexe teg ci teg fële ba sowe xale yi ndax xale yi ñooy avenir bu ëllëg ci réew na ci jeexam am na genn xasida goo xam ne Sëriñ Tuubaa radiyallaahu daf koo defoon tudde woon ko yawmul xamis fi rajo bi defal ci ndénkaan bu am solo yàlla la ko tey jii di gisul alxames tey di gisul alxames ci weeru rajab dañuy tënk xasida googu nu mu gën a gàtt insha allah taala Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne yaa mutaalliquuna kuunu muminin ومسلمين طاعة ومحسنين واجهتكم بهذه النصيحة فلتقبلوها واقرأوا الفصيحة مبتخلين كل ما به أمر ربكم الذي هداكم وعمر اجتنبوا جملة ما عنه نهى ربكم الذي هدى ذوي النهى لكم طلبت منه غفرانا يدوم طوبوا معا لربنا الباقي القديم خذوا الحلال واتركوا الحرام ولتطلبوا بالورع المرامى man akaral xaraara man akaral xaraara arda raba amar xaraamu fa huwa yurdi alqibba yaa ayuha alibaadu ruumu bittuqa karama baaqin jaadibin dal irtiqa safiha man yatlubu jannatin bila ibadatin fa innahu lan yuqbala faasa alladi aqbala lilxayraati bitawbatin min jumlati alxasraati yaa ayuha aljuhaalu faltaallamuu faraa'id alacyaani waltastaslimuu runtu lakum saadata addaarayni biman xamaaniya an il aarayni juttu lakum bi hadihi nasiha wa innaha takfikum alfadiha bi jaahi man qaala jamia almuminin alayhi taslima muhibi almuhsinin mu ne xasida gi ci tënk bu gàtt li mu tënk mooy Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu dafa wax ne yéen ñi ci man di samay taalibe yéen ñi ne maa seen jëwriñ ci capaaru lislaam li ma leen digal moo nekk ngeen nekk ay jullit yu gëm yàlla bañ ko booleeg dara nekk jox seen bopp yàlla te li ngeen def lépp na yàlla tax ngeen di ko nee na laabire bii lii ma leen di indi léegi sëriñ Tuubaa nee na ab laabire la bu ma sañoon ne ngir bañ koo sàggane ku nekk ci yéen na ko déglu na ko jël na ko jàpp lan laa leen digal mooy lu leen yàlla digal man doon def leen ko lu leen yàlla tere lu man doon ngeen wattandiku ko nee na ne man de maa ngi leen di sàkku ak njéggal ci yàlla di leen jéggalul yàlla yéen samay taalibe waaye ngeen ma ci mën a dimbalee mooy yéen it dee leen dellu ci yàlla di jéggalul seen bopp suñu borom subhanahu wa taala nee na na ngeen sax ci jël dund ci sax ci dund ci lu lew nee na lépp lu ngeen di sàkku rek lu mu jafe-jafe bu ngeen sàmmoo sa tënku ci ndigalu yàlla yi loolu la leen yomb nee na képp koo xam ne yaa ngi lekk lu lew de da nga gërëmloo sa borom waaye képp koo xam ne yaa ngi dina lu xaraam seytaane ngay gërëmloo nee na yéen jaamu yàlla yi sa teranga yàlla ji bari na lool xéewalu yàlla ji bari na waaye bunt bi ci mën a jaar ngi am ko mooy ragal yàlla na ngeen di sax nee képp koo xam ne Sëriñ Tuubaa nee na koo xam ne yaa ngi sàkku aljanna ci tegu bu ci ak na nga leer na ab dof li ngay jëf kenn du ko nangu maa ngi yéen yéen ñi réer yéen ñi réer xamu leen seen i farata sëriñ Tuubaa nee maa ngi leen di digal ngeen sàkku ci seen i jëm koo xam ndax kenn du ko yóbbaale kenn nee na man day li ma leen yéene ba leen koy sàkku ci yàlla mooy texe àdduna ak àllaaxira texe àdduna ak àllaaxira maa ngi koy sàkku di leen ko yéene di ko ñaan ci yàlla mi nga xam ne moo ma aar ba am ma gàcce ak adduna du ma am gàcce ak àllaaxira nee na waaye fii ko mën a jaare moom mooy sama laabiri bii ngeen déglu ko jëfe ko nee na bu ngeen ko jëlee rek incha allah taala daa dox seen diggante gàcceeg àddina gàcceeg àlaxira yàlla yàlla dégg dégg tënk ci Sëriñ Tuubaa bëggoon def ñu dëgg dëgg taalibe Sëriñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim ngi nuyu mbokki jullit yi fi teew yépp ci turu Cheikh Sidi Muxtaar turu Sëriñ xam ne moo jiite ñu bàyyi koo ca moom tey jii comme waxtu bi dafa xat lim bi du ko jaraat ndax limoon nañ ko ba noppi ñu ñëw wuutu fi sëriñ Basiiru mi nga xam ne ñu ñëw wuutu fi sëriñ Basiiru Abdul Xaadir sëriñ Moustapha ñëw wuutu ko fi moom mi nga xam ne ñëpp xam na ne bis moo ko daan teewal fi Cheikh nu ànd moom mu jël kaddu wax fi ñu wuutu ko sëriñ Moustapha wuutu ko fi sant ma ma sànnal ko ay kàddoom ñu xam ne kon loolu lott nañ ci lool wante ndigal moom murit ndigal rek lay jëfe la kon ñoo ngi nuyu Serigne Abo di ko jot li nuyoo Cheikh Sidi Muxtaar ak cantam ak ñaanam ak siyaareem ci bis bu tedd bii tey di sàkku ci Serigne Abdou Fatah mu teg ko ci loxo njabootu Serigne Fallou yëpp ginnaaw bu mu jaaree ci Serigne Abo góor ak jigéen mag ak ndaw ak taalibe yi ak soppe yi ak am di jàmm yi ak jullit yi nga xam ne ñëpp lu baax rek moo leen tax a bàyyi koo fa ñu nekk ba dikk teew fii suñu tuddee nag Serigne Abo comme euh, waxtu wi dafa gàtt mel na ne képp kuy suñu kilifa te nekk fii tudd nañ la yaa ci biir ñuy nuyu tamit mbokki tarixa yi nga xam ne ñoo fi nekk yëpp ndax wax dëgg yàlla ñëpp teew nañu fi te leneen lu xew ci biir kër gi itam noonu la ñu fi teewee kon ba mel na ni keneen ba Cheikh Sidi Moukhtar toogee la mu woote woon te di ko jëf di ko dox di ko wax te bañ koo wootee rek wax ko yam ca fekk si nañu ko jëf kon ñooñu itam ñoo ngi leen di nuyu di leen jot lu nuyoo Cheikh Sidi Moukhtar ak siyaare kër yi ñu bàyyi ko ak ñaanam ak cantam di nuyu itam euh, délégation bi nga xam ne ñoom la fi président de la république yabal Aly Ngouille Ndiaye jiite ko. ak euh, papa Abdoulaye Seck ak Mansour Sy ñoom ñëpp ñu wax dëgg yàlla ñuy sama ay xarit maa ngi leen di nuyu di leen jot li nuyoo Cheikh Sidi Moukhtar ak cantam ak ñaanam ci seen département ya nga xam ne ci la ñuy liggéey waaye nag di sakku seen i nuyoo sëriñ bi ak cantam ak ñaanam itam ñu jot li ko ko président de la république euh, Macky Sall. ginnaaw bu loolu wéyee nag comme dañu ne woon waxtu wi jot na. kàddu bi du mën a gudd ndax cant moom cant rek lay tudd Cheikh Sidi Mokhtar mi ngi sant Serigne Abo mii di sant njabootu Serigne Fallou gépp ci bi mu fi toogee wuutu fi Cheikh Mouhamadou Lamine magam ja nga xam ne diir bu gàtt la fi def liggéey fi liggéey bu gudd ku làmb daj ko ku xool gis ko bi mu ko wuutoo fii waa ko Serigne Fallou gépp dañoo jóg ànd ak moom lépp loo ko xam ne santaane na ko wax na ni kenn mënu leen ca kenn jiituwu leen ci wax na ne itam lépp loo xam ne dafa jëm ci Serigne Touba te ñi ñi ñi Serigne Fallou jaboote ak ñañu jaboote ñooñu ñu jël ko jaarale ko ci moom say Sidi Muxtaar wax na ne loola yegsi na ci sa jaar na ci Serigne Abo yegsi ci moom alali boppam dent cant du gudd ba jéggi cant te gannaaw Serigne Bassirou dañ ko fee wóotu te bu fi nekkoon itam lu wax di gudd gudd ak cant la koy mottalee kon cant bunta gudd gudd ba jéggi cant kon sëriñ Abo na mbooloo mi mépp képp ku màggal si waram fu waay jëm ne yóbbaale cant boo xam ne Cheikh Sis Muxtaar sant na ko njabootu sëriñ Fallu ndax diggante sëriñ Fallu ak sëriñ Baara dafa gudd dafa dafa yàgg ndax Cheikh Mouhamadou Lamine nii Cheikh Sidi Muxtaar toog bàyyi ko fi Cheikh Sidi Muxtaar toog jotaayam Cheikh Mouhamadou Lamine moom sëriñ Baara lañ ko duppee te kenn ku nekk xam ne ne loolu kon wëllëre wu yàgg yàgg la kon Serigne Fallou ak Serigne Bara dañoo yàgg ba tax na Cheikh Sidi Moukhtar bi Cheikh Mouhamadou Lamine toogee lépp lu man ci ànd ak moom jàppale ko ci liggéeyu Serigne Touba bi def na ko waaye yéen fay ngeen ko bi Cheikh Sidi Moukhtar toogee lépp lu kër Serigne Fallou man ngir jàppale ko ànd ak moom ci liggéeyu Serigne Touba bi ngir mu am ci ndam def yooyu te ndam li ñëpp gis na ko teg ci seen beneen ba ca des ma di ko jeexale mooy di dénk nit ñi ñu bàyyi fu ñu toog di wuññi ayi bi te loolu moo yaatu ci jamono ji lool ndax Serigne Touba dafa wax ni boo amee ayib da ngaa war a góorgóorlu sa diiru dund pour sa ayib jooju dañ wala si ngay wax ayib bi jamono mu daal di wax ni boo amul ayib da war a góorgóorlu sa ñàkk ayib boobu bañ a dañ diiru sa dund wala si ngay wax ayib ayib bi te ñaari nit sa ñoo am ci àdduna ki am ayib ak ki ko amul boo ko amee góorgóorlu ci ba ba mu moo gën ngay wax ayib bi jamono soo ko amul. gó soo ko amut góorgóorlu ba ba sa sa ñàkk ayib googu continuer moo gën ngay wax ayib jàmm noonu la ko sëñ Tuubaa la sëriñ Fallu itam définir mouridisme soo boo xam ne bu leer la ndax wax na ne murid bi nga xam ne boppam doon na ko ñor bi mu yëpp loolu lu muy def ci boppam la koy jëme tey jii la bëgg dana am tey murid bi nga xam ne nag day jaamu yàlla di liggéey di aw ci ndigal di bàyyi ak tere tey ak ëllëg la bëgg dina am tey ak ëllëg kon ñoo ngi ñoo ngi sas ñëpp di dénk nit ñi doylu booloo nekk benn sellal seen xol yi yéenante jàpp ndax développement bi gën a gaaw ci adduna mooy xoli jullit ñi booloo saa bu xoli jullit ñi booloo rek lépp luñ ñaan suñu borom def te sëñ Fallu ku nekk ku nekk xam na wilaayaam ku nekk xam na mbaaxam ku nekk xam na ak fonkam doomi aadama waxuma sax jullit mais sëñ Fallu doomi aadama rek ndax la yàlla wax ci ci ci ci alxuraan doomi aadama rek moom loolu lay xoolee doomi aadama kon nit la woon koo xam ne ñëpp ñoo ko amee njukkal tey itam ku ñëw ci màggal gi na nga xam ne itam nit ñi amee nañ ko njukkal de nañ ko itam nag ndax ku ñëw ci màggal gi dina mbooloo nga xam moo fi la def tey itam jóge fi ay nangami juróom fukki at juróom benn fukki at nga woote ñu wooteel la dëkk bi fees dell dama ko wax ci kër Alaaji Baara barki dem am na ñoo xam ne bu ñu teewoon woote du ñu am lu toll nii kon gisi nekkul ñu wooteel ko mu am lu toll nii te buñ ko woote waataloon suba mu amaat lu toll nii te kuy ñëw deesul la jox paas deesul la invité duñ la def dara te te li ngay jëfandikoo yaa ko fi indi loolu liggéeyal yàlla dong moo ko kon nañ góorgóorlu ci jaamu yàlla nañ góorgóorlu ci liggéey booloo nekk benn te am genn kilifa genn ak genn du ma wax mooy force murid foo mën a dem ci adduna mbooloo jiitu am mbooloo ànd am mbooloo moomee ku leen jiite ña nekk gannaaw mbooloo ma dëggal ka leen jiite mooy seen force te jullit ñi itam loolu mooy seen warteef kon ñoo ngi gërëm ñëpp ñoo ngi sës ñëpp di sàpp ci nit ñi daal ñu jaamu yàlla te liggéeyi te bàyyi waxante lu ñaaw te bàyyi foo toog nekk ci deru jàmm comme ni ko waxee te loolu ñëpp gis na ko xam nañ ne loolu yaatu la itam ñoo ngi gërëm ñëpp di sës ñëpp. sëriñ Basiru nag waxoon na ni sëriñ Abdul Fatah jitaay bii moo ko bëggoon teewee na mu ko daan teewee ndax sa diggante ak moom waaye sa digganteem ak njaboot sëriñ Fallu yëpp waaye sa digganteem ak di ay discours am ci yoonu murid bi koy xaar bépp waxtu bu nekk waaye nag yàlla suñu borom mi dogal moo dogal lii mu wax ne na ko sëriñ Moustapha wóotu sëriñ Moustapha jox ma kàddu ñooy gërëm ñëpp di sant ñëpp di di jégalu ci guddal bi asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim barke sëñ Fallou monsieur le représentant du khalife général des Mourides yàlla na fi yàgg te wér éminence Serigne Abo chef de la grande et prestigieuse famille de l'Hadj Falilou Mbacké monsieur le représentant des grandes familles de la communauté mouride monsieur le représentant des confréries religieuses du Sénégal monsieur le représentant du chef de l'État chers et honorables invités Serigne Abo seront votre vœu et exécutant votre ordre, il m'incombe encore le devoir de porter un bref témoignage sur votre illustre ascendant, le très vénéré Elhaj Falilou Mbacké, dont nous célébrons aujourd'hui dont nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire dans le recueillement et dans la ferveur. Ensemble et modeste mouride Blanchi sur la harnais de l'obéissance aux ordres reçus, je défère volontiers à votre ndigal. N'eût été la dimension exceptionnelle des l'âge Falilou Mbacké, il aurait été embarrassant de dire quelque chose de lui sur, de nouveau sur lui, tant beaucoup de témoignages ont été faits sur sa personnalité. Mais fort heureusement, la densité du personnage et ses diverses qualités font de lui un sujet intarissable, une source inépuisable de précieuses connaissances. Ses nombreuses vertus, ses hauts faits et exploits, en tout genre, défient l'imagination humaine. Je vous parlerai donc aujourd'hui, avec votre bienveillante et indulgente permission, de l'âge Fali Mbacké et de son amour pour les êtres humains. Dans un monde où l'individualisme est devenu la règle la plus partagée, affirmée publiquement, urbi et orbi, souhaiter pour tous le même bonheur qu'on se souhaite à soi-même peut paraître osé, voire utopique. li ma yéene sans bopp laa yéene lépp la laa yéene ñëpp loolu suñ fel daa wax te muy dëgg ci moom mhm. lu yomb wax la wala yu jafe def la facile à dire difficile à pratiquer Et pourtant, c'est la stricte réalité, car il ne s'est pas borné à le proclamer verbalement. Il l'a vécu intensément et démontré admirablement toute sa vie durant, traduisant en actes concrets tout cela tangible et palpable. Pour lui, faire du bien à l'endroit des hommes était son sacerdoce. Construire des maisons ou fabriquer des meubles sont la vocation naturelle et normale du maçon et du menuisier. Soulager la misère des hommes était le travail régulier de l'âge Fadi Lumbake, la tâche permanente à laquelle il se consacrait du matin au soir en dehors de ses obligations religieuses. Il ne pouvait pas souffrir de voir ou de savoir une personne victime des aléas de la vie, aider les gens, les secourir, les tirer de leurs difficultés, concourir à leur épanouissement, Tel était son credo. Et cela était tellement connu que quand quelqu'un était frappé par l'adversité de n'importe quel point du Sénégal, de la sous-région ou même au-delà, il s'empressait systématiquement de venir à Touba solliciter l'aide de l'Haj Fadilou Mbacké qui ne ménageait aucun effort pour le tirer d'embarras. Les demandes d'aide qui lui parvenaient étaient de tous les milieux, de tous les horizons, de toutes les classes sociales. de toutes les obédiences, de toutes les confessions. Ces demandes d'aide étaient de toute nature, aussi bien financières que matérielles, morales que culturelles, spirituelles ou interventionnelles. Et il les accueillait toutes, sans distinction ou discrimination, et les satisfaisait toutes. Considérant tous les hommes comme des propriétés du Tout-Puissant qui les a créés, pour lui tout service à eux rendu est dédié destiné au Sénat, au Seigneur et sera retribué par lui. Il se mettait toujours à leur disposition et se rendait accessible à tout le monde, hommes, femmes, grands et petits, humbles et riches, nantis et démunis. Il poussait sa disponibilité jusqu'à se départir de son aura personnelle. pour ne pas gêner ses interlocuteurs qui pouvaient lui exprimer aisément leurs préoccupations. Sa générosité inégalée, sa bonté incommensurable, sa bonhomie joviale, sa modestie légendaire, ainsi que sa philosophie pédagogique l'amenaient à descendre de son piédestal pour se mettre au diapason des solliciteurs qui, sans complexe, pouvaient lui soumettre leurs doléances sans être écrasés par sa personnalité. Par ailleurs, La discrétion avec laquelle il réglait les problèmes des gens encourageait ceux à accourir vers lui dès qu'ils rencontraient des difficultés. Son ouverture d'esprit, sa hauteur d'esprit lui permettait, tel un aigle, de planer au-dessus des hommes et de résoudre leurs problèmes. Il avait pour l'homme la plus grande considération. Tout dans ce monde a été créé par Dieu, qui a placé l'homme au-devant et au-dessus de toutes les autres créatures. Il lui a conféré une dignité qui s'attache à sa vie, à son corps, à sa mémoire. Par conséquent, tout bienfait prodigué aux êtres humains est adressé à leur Créateur qui le rétribuera à sa juste valeur. El Hadj Falilou Mbacké, suivant en cela l'enseignement de son maître, le très vénéré Khadimou Rassoul, a choisi délibérément de se mettre au service des hommes pour plaire davantage à son Seigneur. Il montait chaque jour courageusement au front comme un général d'armée, à la différence que, contrairement à celui-ci, il était seul, dénué de troupes pour l'accompagner, face à une armée de solliciteurs qu'il devait vaincre pacifiquement en réglant leurs problèmes. Et à la fin de la journée, le combat cessait, faute de combattants, il pouvait alors se retirer dans ses appartements privés, heureux d'avoir accompli pleinement sa tâche quotidienne au service de Serigne Touba. Il de lendemain. et cette guerre longue, incessante et permanente, celle du bien contre le mal, de l'opulence contre la misère, fait partie intégrante de la mission éternelle de Serigne mission que l'âge Fallou Mbacké avait charge de perpétuer. Dans un monde <coughs> Il n'attendait aucune gloriole personnelle de ce travail. si ce n'est la rétribution de Serigne Touba dont une partie de la mission terrestre est de protéger les êtres humains et de leur servir de refuge et là Fadilou Mbacké avait pourtant un solide alibi un prétexte tout trouvé une excuse de taille la construction de la mosquée de Touba qui était sa seule et unique préoccupation la mission sacrée que lui a assignée Serigne Touba mais il ne s'était jamais abrité derrière sa mission primordiale pour fuir ses responsabilités caritatives de sa charge. Et je crois que l'histoire retiendra d'Elhadj Fadilou Mbacké avec juste raison, c'est d'avoir contribué la construction de la mosquée de Touba de pair avec sa mission d'aide et de soutien aux hommes dans toute la grandeur et la plénitude de celle-ci, sans que l'une n'entravât l'autre. Ce n'était pas évident de mener corollairement et convenablement ces deux tâches titanesques. Je laisse aux le soin d'étudier et de définir sur le plan strictement humain quel type d'homme était El Hadj Fadilou pour avoir pu supporter un tel train de vie des années durant tout au long de son magistère avec tout ce que cela a dû comporter de courage d'audace d'abnégation de persévérance et de maîtrise de soi tel a été Serigne Abo votre remarquable ascendant El Hadj Fadilou dont le souvenir demeurera impérissable dans la mémoire collective vous restez longtemps à la tête de la grande et prestigieuse famille des Hadj Fallou Mbacké, ah entouré de vos distingués et éminents frères, pour seconder vaillamment, vaillamment notre bien-aimé guide Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké dans l'exécution du chantier de Serigne Touba, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké yàlla na fi yàgg te wér, jërëjëf Serigne Fallou. wax ji jeex na dafa am benn baat boo xam ne mënu ma ko ci ñàkk a teew ndax Serigne Fallou ci lii ñu wax léegi nii. li mu doon def ndimbal yi mu doon dimbali yemale goon rek ci jullit yi kuy doomu aadama rek goon lan si loolu mhm. fonk mu fonk dama ko boolal am na fi gouverneur général bu ñax Bernard Corngentil mhm. Ndakaaru bi la nekkoon di woo commissaire de la route jërëjëf juróom-ñetti réew ba mu jeexalee di dem fii la ñëw ci Touba tàggu si sëriñ bi ndax dafa bëggoon sëriñ bi lool fanaan fii ci nekk sëriñ Moussa Fall sëriñ bi jox ko reer joko ko joko bañ sëñ Moustapha Gaye moom la ko sëñ Mbooloo moo ko doon topp la ba ñu añee ba nopp bay tàggoo dañu sëriñ bi damaa ñëw di fete seeg yow wëlëre ndax jeexal naa fekk ba mu daata ñëw sëriñ bi yónni na ma Ndakaar ma jëndal fa benn stylo bu trent mille francs ci juróom-benn juróom-benn junni ci jamono stylo Waterman bu wurus sëriñ bi yëkkati ko jox ko ko ne ma ne ko lii lu mu bëgg nekk ëllëg rek na ko ci bind dégg lu mu bëgg a nekk ëllëg na ko kon gentil waaye si yaay ni ma ah nee ko man de noppi na ndax atteindre naa accri naa sama bateau maréchal ndax maa ngi tàmbalee woon ci chef de subdivision nekk gouverneur de colonie ba nekk au commissaire tey jeexal na dara deselatuma lu ma dem tëdd nelaw rek waaye amul genn pal bu ma seen tuuti table yi ñu ko teg mën di toog sëñ bi toog nii mu toog nii ci table bi napp bi ci nekk mu fab ko bind ci ambassadeur gu ministre ci taabal yi mu doon añee sëñ baa ngi toog nii ci wetam mu fab benn torchon bu weex tàll bu fa nekkoon daldi ci bind ambassadeur bind ci ministre ree ni ma waxal sëriñ bi day damay kaf rek waaye man xam naa jeexal naa lii duma ci nekk dara muy 1956 1958 général de Gaulle jël pouvoir bi en France nommé ko ministre de la France d'outre-mer mu yëlif mboolem commissaire yi nekk si àdduna mu yëlif leen te loolu jàpp naa te am ñu teg ca diir mu nommé ko ambassadeur de France en Argentine ci réew mu rëy rëy mu ñaari yam bind na am na ko mu jóge fa ñu def ko maire loolu sëñ Fallou ko def faw ma yëgal leen ko maa ngi ma yëgal leen te kat du moom dong daa loolu la si a wax

dafa am comme ñu boolee tam muy comité de organisation bi nga xam ne ñoo yor liggéey bi bala ma ciy gën sax ma ministère bi muy délégation bi nga xam ne ñoo jóge ci président de la république ñëw fii ci bis bu tedd bii te Aly Ngouille Ndiaye ko ak Pape Abdoulaye Seck bi nga xam ne moo agriculture ak sëñ Mansour Sy ak Serigne Soxna ak Serigne Khadim Diop ak conseil présidence yi ñu àndal yëpp ak député assemblée nationale yi fi nekk ak conseil économique social yi membres yi ak directeurs saisonniers yi ak gouverneur de la région de Diourbel préfet de Mbacké sous-préfet ak service yi fi nekk yu départementaux et régionaux ak sécurité bi nga xam ne mooy commissaire de police bi ak capitaine gendarmerie bi nga xam ne ñoo seqoon liggéey bi ci bis bi tàmbali ko ba yàlla ak ñu agsi fii tey sëriñ bi bis bi ñëwee daf ñu boole ak comité de organisation bi ñu ànd ko ak autorités yi nga xam ne ñoo nekk ci région bi te gouverneur jiite ko muy membre CRD bi ñu boole woon ñu liggéey bi ñu boole ñu ak sëriñ Abdou Fatah bi nga xam ne moom lañ doon rendre compte ci liggéey bi. ñu seetoon li nga xam ne mooy li ñu war a def te jàpp ne suñu ko defee dana rafetal liggéey bi bis bi dana àgg te ci jàmm. ci li nga xam ne administration bi ak commune bi yëpp waral nañ ko def ñu ànd ko def CRD bi def CRD bi def évaluation bi ba agsi tey ci bis bi loolu la àndoon la commune bi àndoon ak administration bi doon ko def ci ndigalal sëriñ yi ci kanam sëriñ Fata waaye sëriñ bi ñu di la sant bu baax rek di la ne li nga lépp li nga xam ne yaakaaroon nañ ne lii bu ñu ko waajalee bis bi bu ñu àggee bis bi dana mel ni ñu ko bëggee woon wala lu bari dana ci réglé ci commune bi seq ko administration bi lépp defar nañ ko ci ndigalal Serigne Abdou Fatah Fallilou ci ak ànd ko ak organisa comité d'organisation bi nga xam ne ñoo yoroon liggéey bi ba ñu agsi fii tey ñu de la xamal ne rek ñu ngi ñu boolee doon ñu ànd ñoom liggéey bi de sant nañ yàlla lool. ci ànd bi nga boole gi nga xam ne boole woon nga ñu kon ñoom ndax nit ñu neex a àndal lañ nit ñu xam liñ bëgg lañ tey nit ñu xam ak def-def lañ ba lépp loo xamante ne bii àndoon nañ ko di ko def rek rafet na def nañ ko nañ ko war a defee waaye rafet na nañ rafetlu nañ ko lool ba liggéey bi àgg fii kon nag suñu àggee fii tey ci gis gi ci bis bu tedd bii nga xam ne jàmbaari lislaam ji nga xam ne moom lañ koy defal mooy Cheikh Mouhamadou Fadal nga xam ne lislaam jëmu ko yoonu murid jëmu ko waaye réewum Sénégal yi jëmu ko lépp koo xam ne juddu nga tey murid te dëkk ci Sénégal moo dul même boo dul murid rek xam nga Serigne Fallou xam ay jalooreem comme ni ko Serigne Dramé waxe léegi comme ni ko kilifa yi nga xam ne jiitu nañ ci seeni i kàddu niñ ko waxee ak jaar-jaaram yi kon ni ko Serigne Moussa di waxee defe naa ne ku xam Serigne Fallou ku yàlla boole woon la ak moom tey wax na ko loo xam ne làmmiñ dootu ko wax nit kuy taxaw ci suuf loolu mooy li nga xam ne xam nañ ko ci jàpp nañ ko ci muy suñu wàññiwul woon ku baax la woon nit koo xam ne li muy def làmmiñ mënu koo wax ba mu jeex. da nga yéene rek sëñ Fallu moom def naa ne xol moo mën a wax ak moom xol moo mën a wax ci moom waaye du aw làmmiñ moo mën a waxati ci sëñ Fallu ba mu jeex kon nag sëriñ bi ñu di la bu baax sëriñ Yabo di la ñaanal yàlla yàlla guddal sa fan te wéral te di la xamal ne liggéey bi li ñu ci waral lépp def nañ ko maanaam ba mu àgg fii tey di sant délégation bi nga xam ne jël na ci président de la république Aliou Ngouille jiiti ko

ci turu président de la république président Macky Sall ñu ngi nuyu di ziar sëñ Sidi Maxtaar xalif général kulli murid yàlla na fi yàgg te wér di nuyu di ziar xalifa yi fi nekk te toogal fii kër Serigne Touba yépp di nuyu di ziar xalifa yi cheikh yi ñoo ngi nuyu. mboolem kilifay diine ak kilifay aada yi nekk ci jataay bi président Macky mi ngi beral nuyoo sëriñ aboo sëriñ Abo Mbacké mi nga xam ne moo fi Cheikh Mamadou Fadal moom ak ay rakkam yépp président daf ñu fi yebal ak délégation bu am solo lim ko danañu jëlal temps waxtu wi xoj nañu waaye yónni na fi ministre yu bari ànd nañ fi ak gouverneur ak préfet ak sous-préfet ànd nañ fi ak ak ay conseillers ànd nañu ak mboolem député yi nga xam ne ñi ngi fii ci département de Mbacké ñoom la ñu président yebal démb bi conseil des ministres jeexee la ma mujj jox instruction yu mujj ci délégation bii ñu fi ànd ak président mi ngi feddali kóllëreem ak la ci waa kër Cheikh Mamadou Fadal ak mbooleem taalibe yi di ñaan li mu yéene Touba ak ci réew mi mu mottale ko ci sagoom ñu ngi sant yàlla bu baax nag bi ñu teewaatee fii ci bés bi ni ñu fi teewoon daaw ci weer wii bés bi muy bés bi Cheikh Mamadou Fadal ganee jamono ci Daaru Salaam am na ñu ne 1886 am ñu ne 1888 ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru rajab bésu ajjuma boobu ba léegi léegi mu jege téeméeri at ak fanweer waaye bés bu ne xéewal gi mu ñu indaaleel dafay dolliku ba tey jii loolu lépp muy fagguteefu Cheikh Ahmad Bamba bi ko yàlla jagleel mu luy suñu sang seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne al min kas bi abihi doom mi ngi bokk ci faggu teelu baayam yàlla nee na ngëneel mi ngi ci ay loxoom moom moo koy jox ku ko neex te yàlla jox na ngëneel Cheikh Mamadou Fadal moo tax sëriñ Moussa Ka ne allahu sol fadli azim ku mu jox ngëneel defi la yéem turam wa mooy faadilu mooy Fadlul Amin turam bi mooy turam bi doy na xarnu bi boo xëyee ak fuñ munta xëy ci marché yi ci bureau yi ñu ngi ñaan ci sëriñ Fallu te yàlla mi ngi nangu ñaan yooyu ci barke foo jaar tamit di dégg li ma sëriñ Fallu defal te doo dégg li ma defal sëriñ Fallu mille neuf cent euh, soixante bi mu fi jógee ba léegi bés bu nekk li ñu koy tudd jaakaar naa ne ci réew mi amul kenn kuñ ko koy tudd sëriñ Fallou may yi mu yoroon moo ko may nit ñi waaye doowutoon wër di woo nit ñi pour di leen woo ci boppam ku safoon xorom la te waxam di njariñu kese daana wax ne du ma ne kenn kaay mos ma waaye ku ma mos di nga dellu ku bari xam-xam la ci anam yu ne ba ñu tuddee ko woon géeju xam-xam bu amul tefes ku fonkoon Serigne Touba waajuram la juboo woon ak magam Cheikh Moustapha juboo woon ak i rakkam li koy firndeel ëttu kër boo dugg fii danga fa fekk ku ñuy woowe Cheikh Mamadou Fadal ku bari yërmande mëndale woon lool juboo woon ak kilifay aada yi ma bokkoonoon ak jamono moo taxoon Senghor fonkoon ko lool mu téyeloon ko àdduna sëriñ Moussa Ka nee na ku ngoor sengoor ak la sengoor ngooraale mëneefu la tëggat tëggati yaa fooraale sëriñ Abo loolu sëriñ Fallou defaloon sengoor la ñu bëgg nga defal ko président Macky Sall ndax suñu yéene ndax yéene mu mën koo àggale bu baax ci réew mi ay taalibe sëriñ Touba lañu te sëriñ Touba njëriñu kese la ci igmatu Cheikh Ahmad Bamba sëriñ Touba nee na jéggi naa nit ñi ak li ci loxoy nit ñi dem ci yàlla miy boroom nit ñi ba ma àggee fa yàlla miy boroom nit ñi jox na ma njariñal nit ñi te fegal na ma lori nit ñi ma delluwaat ci Cheikh Mamadou Fadal yàlla mayoon na ko jamono boo xamee ni bii mu ngi naweti nga waa ji ñëw daana ñaan taw taw bu teel te barkeel te ñun ñi fi nekk jàpp nañ ne loolu sax suñu borom mayoon na ko ay doomam sëñ Modou Boussa Dieng ak Alaaji Baara sëriñ Abo yow ak say rakk ñoo ngi leen di ñaan di dellu ci lu mel noonu ngeen ñaanal ko senegaal ñoo ngi ñaan ñu ànd ak njaboot gi ànd ak taalibe yi dellu ci liggéey bi ndax liggéey moo yorum réew moom la suñu maam Cheikh Ahmad Bamba daan digle ñoo ngi sant yàlla bu baax di jullit ci sang-sang salaahu alayhi wa sallam asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf sëñ Touba. yéen bokk jullit bi daje yëpp ñun bokk taalibe bi yëpp maa ngi nuyu. ci nuyoo lool ak njaboot sama kilifa. suñu kilifa sëriñ Abou Mbacke moom Cheikh Modou Fadal di ko ñaanal mu de ci wér lool ak njaboot Cheikh Modou Fadal yëpp am nañu taalibe yëpp di jël nuyoo bi nag di ko takk ci Cheikh xam ni moo jëw ñu kër mu jottal nuyoo bi njaboot Cheikh Modou Fadal yëpp bokk yi fi daje yëpp maa ngi leen nuyu ndax ñi yëpp di di kër gi kër gi jóg yëpp xam nañ xam nañ kër yëpp wala boo xam ne bii sax kon bokk waa euh, des euh, teew nañ ci seen sët teew nañ ci maa ngi sant bokku jullit xam ku ne jógee nañ ko ñëw ngir màggal gii te sëñ boo lekk ne sëñ na ko sànq bi yàlla dogalee dem fenn dañoo fekk seen sëñ Muxtaar laaj ko ne ko ban bés mooy benn bano benn banu rajab mu wax bés ba ñu daal xam ñu loolu xam nag ni bés màggal gi sangam la ñu daal di woote li ñu ko def mooy dañoo def CRD boobu du Macky Fall ko ñu dem ci Cheikh Abdoulaye ñu def moo ñeeru Touba ànd ak àll ak ñoom ñu def ñu def ko def loolu temps woowee bañ ko jógee ñu daal def benn CRD boo xam Mbacké lañ ko defee. jot jaaree lañ ko defee ci ci ci loolu. ak autorité yi tam ñoo ne ci région bi ak département yëpp ba ñu fa demee lañ ko doon sàkku lépp eh, di ko wax ci mbiru màggal gi lépp def nañu ko ba romb na cent pour cent monsieur le ministre maa ngi lay jotti nuyoo bu Cheikh Maodo ak Cheikh Abou Mbacké ci turu tam moo jëwoon kër nga jotti lu ko sunu xarit eh, le président Macky Sall nee ko taxawaay rafet na lool ci màggal gi li ci waroon ci màggal gi lépp def na ko monsieur le ministre man na maa jaar ci turu ñi xam ne moom moom ñoo tudd ñoo tudd ñëpp ñëpp waaye dama koy dama sama jarbaat sëñ Xaadim Diop moom mu ministre mu jot mu jot mu tudd jaaroo turam waaye maa ngi nuyu nag docteur Abdoulaye Seck mi ngi xëy na ku la xam ne dégg ma sëñ Fallu moo wax ci làmmiñam ma dara sëñ Fallu rek la ma wax président Macky Sall ne xol sedd na njabootu sëñ Fallu bi ak lu taalibe sëñ Fallu bi xolam dana sedd te itam li mu gën a ko nawet li na koy wax ne ko dañoo bëgg dañoo soxla ndox mu laaj noo ko bëggee kon nag sëñ Ebo mi ngi lay xamal ne la. nu président bëggee dana lu ko weesu ñoo ngi jot ni yooyu monsieur le premier ministre ak soxna na ci Soura Diatta ci Ebo Sall seen ak soxna Aminata Tall ñëwoon yëpp maa ngi nuyu ñëw na ci màggal bi yëpp ak ak yoon teraka yëpp na teraka yëpp mu jot na ko di nuyu teraka yëpp suuf xool naa seet na gërëm nañ président di ko xamal li ko li ñu war a ci màggal yëpp def nañ ko ñun noonu ak sëñ Fallou la nan sëñ Fallou ku nu ko jàppal rek ñu jàppale li la war jàppale xool yi seet na ñoo ngi ñaan suñu borom yi tam dara tëwu ko ñu teewaat fii liggéey déwén te itam li Cheikh Bourou Sow moom sëñ Fallou daal wax naan euh, ku dara manqué dañ ko def ci jënd bi ñu jëfandikoo ko waaye ñun ñun dinañ ci nekk ñoom ñoo ñaan ñoo seet si ne ba ñu ngi ñaanal ku fi ñëw ci màggal bi tax laa jóg saa loo loo fi loo fi yaa xam na nga na ko bëgg bu sëriñ Abo ñaan kosal la jàmbaraay wax ci li nga ma seet la mu wax la mu wax euh, bañ dem ñaan pour pour le sant ndegam seen wàllu moo wax loolu surtout wax ma seet nu teel ak ak ñu ñu julli yaakaar ñu seen Touba kon nag monsieur le ministre loolu lañ amoon ci di ko wax mbiru nawet bi wax nañ ci wax nañ ci da dañoo jëf da wax euh, da ngaa jël sëb yi da ngaa ko du noppi jaar yi nawet bi nit ñi bëgg da dana dana ne wala nu mu war a mel dana mën euh, monsieur Ndiaye boo ñu yaakaar nañ ci tàllal seen waaye nag euh, maa ngi wax loxo mu lay jógee. sëriñ bi sëriñ sëriñ màggalu ko def ku na xam ne Cheikh Modou Moustapha Mbacké bi sëriñ Fallou demee ba am ñaareel wala ñetteel la woo Cheikh Modou Lamine ne ko damaa bëgg ñu ñu sàkkal Cheikh Modou Fadal ak bés bi ci Touba muy jox ko def Cheikh Modou Lamine ànd teel moom ñu doxal màggal gi ba ba noppee gis Cheikh Modou Moustapha Cheikh Modou Lamine yore màggal ga ba lépp di war def lépp def ko ba yàlla dogal euh, euh, sëriñ Touba fekk sëriñ suñu borom woo ko mu wuñ ci boromam

boo ma nekk boo ma neexee fekk jàll mu si si bàyyi jàll ma cool cool ko boo ma naqaree ma wàll jërëjëf yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ba kullu am man sutu xeyrin islaamu allahu ana xeyr islam mbokk yi di fàttali ñu ma yooni kilifa yi eh, sëñ jili ana sëñ jili sëñ Moussa Fallou la ilaha illallah

alhamdulilahi rabil alamin jërëjëf mbokk yi kon nu ànd sant suñu borom subhanahu wa taala euh, julli ci sangam ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëriñ maam Thierno waaye sant alhaaji Cheikh Sidil Muxtaar sant borom Tuubaa Xaadimu Rasuul jërëjëf borom Tuubaa jërëjëf borom Tuubaa jërëjëf borom Tuubaa mu mel ne kon euh, sëriñ maam Thierno gis nga ko euh, sëriñ Abou Mbacké moom Cheikh Mamadou Fadal Mbacké tabarkàlla ñëw na ànd ak délégation bu rëy fekk si na ko itam képp koo xamante ne ci réew mi nga bokk te day tey nit ku baax te bëgg sëriñ Tuubaa te bëgg Cheikh Mamadou Fadal Mbacké dégg nga waxtaan ni mu demee Ah, ci résumé bi tàmbale woon nañ ko euh, gis nga euh, invité yi niñ bëre bëri na umma islam bi bàyyiwul kenn ta kullu turux boo xamante ne ni euh, bokk nga ak Cheikhul li nga bëgg bokk pas-pas bokk li nga bëgg bokk li ñu bëgg muy yëkkati islam Euh, dëgëral iman euh, taxawal istaan mu rafet lool euh, ci réew mi ak ci bitim réew ak fu nekk ci àdduna bi li si sëñ Tuubaa waxoon ne man maay ki nga xam ne lil Moustapha nawaytu maayu jaddidu sunnatul haral wa inni ahmadu mu mel ne kon dégg nañ ko ne nii teewlu nañ ko léegi dañ ko ànd ak suñu mbokk yi nga xamante ni ñoo ngi teewlu ci télévision ba waat yoon Bichri TV waaye mel ne am na ay kaddu yu am solo yoo xamante ni dégg nga ko fi dégg nga ko fi mu tàmbalee ci ki njëf ki njëkk jël jël kaddu ba ci nga xamante ni nag mooy porte parole bi nga xamante moo yor njabootu kaddu njabootu Cheikh Modou Fatal Mbacké di Cheikh Fatal Mbacké ñu jéem ko commenté tuuti si maam Thierno mu mel ne euh, suñu xol sedd na bi ñu déggee euh, Alaaji Ndiaye mi nga xamante ni mooy njëkk a jël kàddu wax nga li nga xamante ni mooy yitte réew mi ginnaaw ba mu feeñalee ki nga xamante ni réerul sax nag moom muy Cheikh Modou Fatal Mbacké euh, am loxo bu mu joxoñ nag mu am solo lool mu wax ne gone yu ndaw yi gone yi tey jii ñooy magi ëllëg yi waajal leen gone yi tey mu jëm ci magu ëllëg muy talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat maam Thierno Ah, jërëjëf sëriñ Moustapha ñi nga am mbégte lool it ci di santaat yàlla mi nga xam ne moo nu baaxee ba fekkeloonu bis bii di kazu rajab doon ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru rajab ñu am mbégte yooyu ci màggal ci jëmm ji nga xam ni moom mooy Cheikh Mahamadoul Fadal mi nga xam ni moom la yàlla taw féexale Serigne Touba ñu mën a tënk ci buñ doon wax Serigne Mahamadoul Fadal li mu doon daal mooy ah, fala wala la fadlullahi aleykum wa rahmatuhu la kuntum min alxaasirin wala wala fadl wa an wala fadlullahi alayka wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin abada walakin allahu yuzakki man yasha wallahu wasiun alim waaye wa anna alfadla bi yadillahi yutii man yasha wallahu yaxtasu bi rahmatihi man yasha qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dalika falyafrahu kon daal Serigne Mouhamadul Fadal li nga xam ne moom la doon suñ ko doon tënk mooy dañuy wax ni mooy ngëneelul yàlla lu soob yàlla mu defal ko Serigne Touba waaye suñu yàlla taw fee xelee ñu ànd ak màggal gi nii mu demee ba agsi ci bés mel ni dañu war a dellu sant yàlla te xam ne nag dañoo am ay jikko yu ñu war a jàngee Sëñ Fallu Sëñ Fallu bu ñu nee la ku bëri yërmande la nit kon daa war a am yërmande ndax yàlla yërmandeem lay wasaare ci mbindeef yi ngir ñu man koo def ci nit maanaam ñu mën koo seq mbindeef yi ñuy dund bu ñu nee la Cheikh Mamadou Fadal dafa amoon ensuñul maamala mooy ku rafete woon ab jëflante la ci ni muy jëflanteeg jullit ñi ci ni muy jëflanteeg murid yi buñ nee sëriñ Mamadou Fadil makaarimal axlaax mooy jikko yu tedd yi du xas nit du jëw du wax nit lu mu wax du ràmbaaj xàmmewuloon gone ak mag ñëpp la joxoon cër ngir suñ borom lim ni mi man xalaqnaa tafdilan kon sëriñ Fallu mo làmboo mbolem tedd nga yëpp te sëriñ Tuubaa ñaanoon am ni wahab lanaa makaarimal axlaaqi maa attahaabu bi bila shiqaaqi nam ko waxee ne wajaal saqiranaa yuqirul kabir wajaal kabiranaa yuxiinu lis saqir wajaal qulubana ala tawadul bila tanasuin waaye ba mu àgg ci ata muslimin kon sëñ Fallou ata nasira muslimin nag mooy Cheikh Mamadou Fadal ndax moom jullit ñëpp la la doon dimbali dana wax daan joxe ba du am lu mu ba du dese dara waaye taxaw ñi mu seqaloon lislaam dafa amoon ak ñoom jëflante bu rafet mboolem ñi nga xam ni da leen da dañoo newoon ci réew mi ak ñu nekkutoon ci réew mi ndax ki wax nañ ko léegi ci biir sëriñ Afsal bu ni sëriñ ma sëriñ Amadou mi ngi dëkk ci Égypte Serigne Ahmadul Badawi noonu waaye Serif Anta Madi mi nga xam ne daa nekkoon Guinée lu tax mu leen doom mooy bokk gu lislaam gi ñu bokk te mënuñ koo séddoo te suñu borom waxoon ni jullit ñëpp ay mbokk lan kon sëñ Fall dafa taxawoon ci kon innamal mu'minuuna ixwatun waaye dafa àggoon ci fa aslihu bayna axawaykum fexe ba képp ku bokk ci lislaam mu boole la ci boppam waaye tamit sàmm doomu aadama mi nga xam ne suñu borom da koo teral moo tax bu ñu déggaatee tamit ci bis bi liñ ci gën a mën a jàngate mooy màggug julli màgg gu julli màgg moo tax Sëñ Fallu wax ni sunu waram daf maa julliloo ba mu ba mu ñëwee moo tax nag kon ngay gis réalisation yi mu def yëpp tabax jumaa ba muy tabax jumaa ji dëkk ci néegu ñax la doon la dëkkoon moom Serigne Mamadou Fadal kon nag yooyu yëpp di lu am am solo sëñ Moustapha ci xanaa di delluwaat di ñaanaat ci kàddu Serigne Abdoul Fatah yi mu wax ci eh, nawet bi ku mas a jaaxle ba ci sëñ Mamadou Moustapha bu ñu ko mas a wax ab nawet lañ bëgg dina yabale ci sëñ kon nag ñun ñi nga xam ni ñooy ay ndaw wala yi bind yi ñu war a am mooy jàngat ci sëñ Fallu jikko yooyu ndax ni ko sëriñ Abdul Ahad ka doon waxee léegi sëriñ Saliou daana wax ni maanaam kuñ mënta roy amut ndax yàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo gën ñëpp te suñu borom dañu ko royloo kon nag roy ku baax day tax nga raw sag mas kon li ñu war a roy mooy jikko yu rafet yi ñuy wax saa bu ñëwee ci bu fees mel ni ñu xam ne it liggéeyal yàlla rek am solo ndax sëriñ Fallu lim doon liggéeyal yàlla xëy na moom ndax leeral nañ léegi wax ni sëñ ma sëriñ Modou mu Falilou moom sëriñ Modou Bousso Dieng moo ñëw ci sëriñ Mamadou Lamine daa bëggoon ñu jàppal sëriñ Fallou ab bis di ko defal waaye sakk woon ndigal nag sëriñ Mamadou Fadal ba mu xamal ko ne ko ban bis nga ko bëgg a def mu ne ko Kazu Rajab mu ne ko bis boobu mooy sama bis ndax ci laa ci la gane àddina kon nag loolu eh, ba mu koy ba muy jëfam jëfam yu rafet yi xamutoon ni dana am bis bi ndax dara ko doon jëfal yàlla rek ngir yàlla kon sëñ Moustapha ñu ngi lay delloo kàddu gi tabarkalla bu mu doon jëf-jëfam ju rafet ji euh, xamoon na ne dafa jëfal yàlla te yàlla mooy ki nga xamante ne man kaana lillahi kaana law jàllalahu mu mel ne sëñ Mame Thierno tabarkalla euh, def nga résumé bi nga xamante ne ni tabarkalla ci Cheikh Mamadou Fadal Mbacké euh, mu mel ne itam seetlu nga li ñu seetlu ñun ñëpp te muy ndëgër laay yoonu murit te muy pas-pas bi yoonu murit te muy li nga xamante ne ni mooy li téye yoonu murit te rafetal ko bu baax a baax muy Mame Thierno nga gis Cheikh Cheikh Abdou Fatah Mbacké Euh, sëñ Mouhamad sëñ Cheikh Mouhamadul Bachir euh, sëñ Modou Maam Mbacké moom Cheikh Modou Fadal euh, sëñ Ahmadou Rafaay sëñ Ahmadou Badawi ñoom ñëpp ne groupe ci suuf ñoom ñëpp toog di déglu ñi nga xamante ne nii mooy seen mag gi xamante ne nii muy jàmbaar jàmbaar yi Serigne Touba ji jàmbaar yi Cheikh Modou Fadal di sëñ Abo ne tekk kenn déggul kàddoom boobu ba léegi li seen bu fara wax rek doon na ko sax moom la waxaalal ñëpp wax moom la waxaalal mu mel ne yoon murit lii mooy dëgër laay xanaa am suñu maam Cerno loolu ñu dolli ci yoonu murit Ah, eh, man daal loolu li ma ci tegaat mooy maanaam ñoom loolu ñu def warteef la ndax jëmm ji nga xam ne moom la ñuy fàttaliku bokk na ci gën a ràññiku ci moom mooy ak taalibe sëñ Fallu ba mu waxee Serigne Touba ni ko ah, jaay yow sama Serigne bi nga xam ni yaay ki nga xam ne kenn amu la bu ma doon wax li nga doon daal mooy wurus nga waaye wax ko ni ko yow daal laa fekkoon lépp lu tëjee nga ubbi ko waaye jaay naa sama njureel jëndee ko taalibe ba ma ko jëndee ba noppi defaat naa ko ci yow addiya loolu it dañoo wax ni sëriñ sëriñ bi bi mu fi jógee ci saayir nga xam ne ñibbi na Touba la 7 août 1927 dafa dañoo wax sëriñ Fadlu ni ko wàllu miiras biñ ci tollee lu wér a wér la bañ ko waxee dani man de sama njureel dama ko jaayoon jënd jënd ko taalibe kon nag miiras mi ooma ci dara te loolu lu wér la loolu xam ngeen ni lu kawe kawe la te loolu ak taalibe rek moo koy symboliser woyafam moom kone xam na ko bëgg sëriñ Touba bëgg taalibe taxoon na njabooti Cheikh Ibrahima jëloon na ci ñaar. sëriñ Abo mii fi tey ñuy ñaan yàlla suñu borom gën a dëgëral taxawaayam waa juróom doomi Cheikh Ibrahima Fall la jëloon na fi doomi sëriñ Mortala Fall kon moom dafa mas a bëgg ak taalibe moo taxoon mu taxook maam Cheikh Ibrahima Fall ngir bi jumaa ji àggee te Cheikh maam Cheikh Cheikh Ibrahima xamoon na kuy sëriñ ndax da ko ne ko bu ma fàtte sëriñ Fall it xamoon na koy maam Cheikh ndax xam na ni lépp lu di ak taalibe moo ko yasal moo ko wane moo tax bi sorol bi àggee mu génne woon junni ne ku ma mën a wax kan laa ko bëgg a jox kan laay tudde lii ma jox la ko keroog bi bi nga xamee ne kenn xamu ko mu ne xamoon naan doon ko xam waay Lamp Fall laa ko tudde kon loolu day firndeel ni moom ak na naka jekk moom la mas a dund moom Serigne Mamadou Fadil loolu bind la buñ ci a mën a jàngate ñun taalibe yi ndax jamono ji mel na ni ak taalibe dafa tàmbali am lu ciy dugg ndax nit ñi dañoo dem ba am gëm-gëm bu toll ni nit warul top ci kaw ngay toog ci suuf nit warul waru waroo ko mën a sumil mbaxana waroo ko mën a raamal te loolu doonoon loo xam ni yàlla ma nga tàmbalee woon ca yonent ndax yonent ya ñoom iraada lañ amoon mooy ay murid lañ woon ñoom saxaaba yi yonente bi alayhi salaatu wasalaam murid la woon ndax wa tabe mele te ibrahima ani fan saxaaba yi ay murid lañ woon ndax suñ borom moo leen waxoon inna alladina yubayi'unaka te sëñ bi sëñ sëriñ Tuubaa nee na wa bi kalaam yow bil ishaara ihdi muridan yatubul inaara ci jaalibatul maraaxib yonente bi da daan jubal ay murid ci kalaamam ak ay ishaaram kon nag loolu lépp buñ ko seetee dañuy gis ni ak taalibe bi rek mooy li am solo moo tax sëriñ Mbàkke Buso doon wax ni xam la ñuy toppee yàlla waaye ak taalibe bi tax nga àgg ci moom suñ borom rek rëy ku rëy rëylu fi kanamam moo taxoon iblis mu dàq ko ci nguuram kon rëy rëylu amul solo li am solo mooy ak taalibe te ku tuuti suñ borom yëkkati la ndax avion bu taa bu taxawee day rëy waaye saa bu jógee daa di gën a naaw moo tax Serigne Fallou li mu am lépp mi ngi ko amee ci taalibe Serigne Moustapha euh, Serigne Fallou li am lépp mi ngi ko amee ci taalibe Serigne Mame Thierno nga wax ko isil muridu laa yuridu abada xayru di daa rahmaanu xay su xasada mu mel ne kon loolu yittalu na ko waaye dafa am baatin bu tabbi ci biir xam naa ne ni mu ko yëgee noonu nga ko yëgee te seetlu nga ko mu mel ne wax nañu euh, nga xamante ne jàng nañ ko mboole seen 4201 euh, 4201 boo ko addatee ci ñi xam adat 4 six lay joxe un boo ci dollee un muy sept mu mel ne kon gërëm naa sëñ Fall yi dafa feeñaat ci baatinu eh, jàng mi ngi xam ne jàng nañ ko alxuraanul karim ji nga xamante ne nii eh, tàbbi na fu mu mel ne kon eh, Sénégal itam tab demaat nañ nag di leerluwaat di di di di xeñtuwaat di nga xamante ne nii ci baatinu Cheikh Mamadou Fadel Mbacke te Cheikh Abdoulaye Mbacke mu baax ma di rakkam ci tedd ja nga xamante ne bokkoon na ci ay bis daana ko dawalal sëñ Fallou am nu mu ko defoon ne ko wëral ndax yaay sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa des ko a xam na ci di wax ne Cheikhul Xadim Cheikh Mamadou Fadal waa Sénégal cat leen tabbi ci ñoom ñu ne ko ana Mbàkke lu tax nga wax loolu mu ne Cheikh Mou Fadal nit ñi day ñëw moom rek di di ko ñaan dërëm di ko ñaan di ko ñaan ay ko ñaan eh, aaju ji faju waaye buñ sa bu Sénégal yeewu woon rek woon nañ dañu koy ñaan mukk aaju ji faju te ñaan ko xaalis ndax bu aaju fajoo xaalis ki ndax eh, xaalis eh, xaalis dikk xéewal dikk barke dikk sutura dikk lépp dikk kon mu mel ne aaju faj jooju nag Cheikh Modou Fadal Mbacké ah, ci barkeb sëñ Mamadou Mbacké moom Cheikh Modou Fadal ñu koy ñaan yàlla mu yàgg lool te wér di ndax lii mënu defal noonu ma fàttixul Bichri jël sunu turu télé bi tuddee ko ma fàttexoon Bichri TV na nga ko ci santaat bu baax di ko ndokkeel di ko delloo njukkal di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu dimbali ñu bàyyi na ko fi ba lépp lu ñu am ci ñun yéene ci moom euh, ci ca tàmbali ca xamante mooy ca mën a ca bopp ba di sëriñ Madiama Mbaye ba kii fi ki ko fi nekkal di sëriñ Ndiaga ak képp koo xamante ni da nga bokk ci Bichri nga nekk euh, euh, Sénégal nga nekk Europe nga nekk Angleterre nga nekk États-Unis nga nekk partout di nekk ci réew mi te bokk Bichri TV te laale ca dara lu mu toll dara fatal ay ni tabbi nañu teg ko ci loxol Serigne Modou Mamoune Mbacké mën na tegal ci loxol Cheikh Modou Bachir moom Cheikh Modou Fadal Baraka mu tegal na ko ci loxol Cheikh Modou Fadal nu tabbi nag ci di bég ba faw di am aljana ba faw di am xéwal ba faw mu mel cant gi dafay daal di laal di maam sëñ maam mm-hmm. ci képp koo xamante ne nag ah, laal nga ci Bichri ci sab liggéey ñu di ko seetlu bu baax a baax bi liggéey bi tàmbalee yow mii ah, ci say kaddu wax nga ne nañ ko waajal bu baax a baax ñun ñëpp te kenn ku ci nekk nag looy def ne na nga ko xam kenn ku ci nekk looy def na nga ko kenn ku ci nekk na nga bële sa bëgg ak sa yéene tàbbal ko ci liggéey bi suñu maam Cerno àndoo tàbbi ci loolu jërëjëf li ma ci tàbbi ci tënk mooy eh, li nga wax léegi xam nga danga da ngaa wax ni kaamil yi ñu wàcce sax kii man feeñ na ci loolu rek laay tënk maanaam ci ci tënk mooy Serigne Fallou léppam xarxu xaada la Serigne Fallou ni mu taxawalee jumaay Touba ndax Serigne Mahamadul Fadil 1945 la wut Serigne Serigne Mahamadul Moustapha 1948 la tàmbali jumaay Touba te loolu lépp xar baax la ndax jamono boobu lépp métti na dara nangu neexutu am waaye kon lakum li kay aada bi xarxa aada day feeñat mooy kiimaan gi ma waxoon sëñ Touba ne ko bi ma jaaree sama ngiral jënde ko taalibe nga def ma nekk ko loolu daa feeñaat ci biir dunduk Serigne Fallou te Serigne Touba waxoon ne kulliyati mujizatun taqarat sama lépp moo gisaatu yonent bi la yoo xam daa yéex ñëw waaye Serigne Fallou daf caa seppi ku mel ni buñ ko doon misaal daal lim doon ci biir yoonu Murid ci biir kiimaan yooyu moom mooy mu mel ni jumaay waa nga gis ni sooral bi moo tim lépp Serigne fallu kiimaan gu gu demee noonu la doon euh, ta beneen bi ma ciy dolli mooy télévision bi nga xam ni suñ borom taw feexal nañu ñu tuddee ko Mafaatihul Bichri euh, lu lu lu lu ñu yàlla taw feexe la waxoon naa ko dinaa ko baamu mooy télévision bi moom lañ njëkk a tuddee ci wàllu télévision bu am ci yoonu Mouride moom la njëkk a tuddee xasida ak Serigne Touba am na télévision yu fi am waaye tur yi ñu am yëpp xëy na delluwaat na ci Serigne bi waaye télévision bu ñu tuddee xasida ak Serigne Touba moom Mafaatihul Bichri moo ci njëkk te daa daa am lu muy symboliser waat loo xam ne lu biiru la mooy ma Mafaatihul Bichri bu fekkoon ni ab néeg boo xam ne ay mbégte dañ faa nekk du caagi ni mooy nga dugg ci biir jël mbégte déedéet néeg yi mbégte nekk yëpp bu doon junni néeg la seen i caabi mooy Mafaatihul Bichri mooy mooy mooy mbégte yëpp caabi yi moom mooy ma fatihul bichri léegi nag kon loolu day firndeel ni dafa am yeneen télé yu war a ñëw gannaawam ñu tudd xasida ak Serigne Touba te moom mooy ki nga xam ne moo leen di aal ci kale yooyu bañ mën a tijji. loolu di lu am solo kon ñi ngi santaat bu baax Serigne Mamoun mi nga xam ne jamono bu nekk mi ngi rafetlu liggéey ak di ko ànd ak ñun ak tudde woon télévision bi ma fàttali Bichri léegi maa ngi koy wax Serigne Amadou Badawi di ko wax ne ko Serigne Mamoun sax mi ngi doon wax ni télévision bi de télévision waa Kër Serigne Fall la ndax ku xam na ni. ñaan gi Serigne Touba ñaan ci biir tam dëppoog Serigne Fadil bañ féetale ko ma faatal Bichri googu kon ñu ngi ñaan yàlla mu gën def ay ati ati at yu ñuy fekkee màggalu Kazu di ko dundal ci geneen anam ba Bichri gën a màgg balaw fu ne ci àdduna bi bañ man ko am ci biir réew mi di ko fi sédan ndax loolu njariñal jullit ñëpp la njariñal mboolem muridi la kon ñu ngi sant bu baax di gërëm màggalu Kazu Rajab daal 2016 jàpp nañ ni fii ak mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo doon topp seen télévision Mafatihoul Bichri di leen jox dig daje ci màggalu Kazu Rajab bu déwén incha allahu taala dina am Bichri yeneen yu mu gën a andi incha allahu taala waaye di leen jox dig daje ci événement yi nga xam ne mi ngi suñ kanam ndax Bichri dara du yitteem lu dul service waa kër Serigne kon ñu ngi sant bu baax di gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu euh, tabarkalla maam Thierno être au service de waa kër Serigne Touba mooy sunu yitte te mooy sunu euh, bëgg-bëgg itam Euh, ngi ñaan Sëñ Tuubaa li nga xamante ne ni moom la dëgg moom la dogal ñi nga xamante ne ni ñooy ñi ngi ñi dëgg mal jëm ci moom moo waxoon ne yéen ñi dey bu ngeen raamee jëm ci man man Ahmadou Bamba ma dox jëm ci yéen su ngeen doxee jëm ci man ma daw jëm ci yéen su ngeen dawee jëm ci man ma naaw këf leen kon Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul moo nuy fas yéene naaw kon ñun këf ñu li fekk ñu ngi dugg ci Mafatihul Bichri TV ne ci biir Bichri kon Ahmadou moo waxoon ne Ahmadou nga ca Bichri kon Bichri TV nga ci biir Ahmadou kon mbokk yi maa ngi leen di bàyyi loo xel euh, sëñ Mame Thierno wax na ko xam naa fii la mën a yem ak yéen ci euh, édition 2016 màggalu Kazu Rajab euh, ci bu ko defee mbokk yi ñu leen di bàyyi loo xel Mafatihul Bichri TV mu ngi nii fii la fii ci pàkk bi ñu taxaw fii pàkk bii la sëñ Abdou Lahad Mbacké taxawoon daal di wax ne sëñ Abdou Khadr bu fekkente ne dañoo yemale ak rajo ba ca Mali mbaa rajo ba ca ba ba ba ca ba ca euh, Bamako Guinée nu ànd nun ñëpp bàyyi bàyyi leen fi seen télé bàyyi leen fi seen rajo te tey woote fii ñu daan woote mi ci jumaa ji mu mel ne kon bëgg-bëgg boobu moo tabbi ci biir murit yi nga xamante ne nii sëñ Madiame Mbaye ci xelam mu rafet euh, sëriñ Ndiaga Seck ci xelam mu rafet sëriñ góor a sëriñ euh, murit bokk yëpp képp koo xamante ne nii yaa ngi nekk ci biir Mafatihul Bichri TV lii ma seen bëgg-bëgg fexe ba dabu kaddu yu tedd yooyu nga xamante ne nii si Abdoulaye Mbacke waxoon na ko mu jëm ci murid kon murid yéen rek la bu ngeen ci jàppul kenn du ci jàpp abonné leen ngeen tabbi ci ñu ànd liggéeyal Sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul wan leen li fi nekk géem nañ ko boobu ba léegi gis ngeen ko suñu kem kattan du ñu bàyyi màggal yaa ngi ñëw ndax Sëñ Tuubaa waxoon na rafaani ilal jinaani jiimu wala siwaaya jësi xara jiimu kon sëñ maam Cerno nun daal nu ngi fi États-Unis am na ñu fa nekk Italie am na ñu fa nekk Angleterre am na ñu fa nekk Europe yëpp daje na am na ñu fa nekk Sénégal gi desul des sëñ bi sëñ ñu ngi fi ñëpp ànd doxal ngir bëgg-bëgg lan murit yi nga xamante ne ni sëñ Tuubaa dara ci seen xol doon na fa lu toll na ab zarra nu fexe parce que ne fekk si leen fa yëngal zarra boobu bégloo leen ci barkat ma fàttexul Bichri TV kon noo ngi sant yàlla bu baax a baax noo ngi gërëm suñu borom subhanahu wa taala bu baax a baax waaye nu ngi sant kan ki ñu dimbali ba nu mën a xam suñu borom subhanahu wa taala muy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul jërëjëfe Serigne Saliou jërëjëfe Serigne Fallou jërëjëfe Cheikh Ahmadou Khadim waaye jërëjëfe personnel Bichri TV gi yëpp noo ngi leen sant di leen gërëm di lim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ca kanam